dugg nañ ci kër kilifa diine yi sukk suñu ay oom nuyu leen bu baax ziyaara leen sàkku seeni ñaan ñaanal leen ñun tamit ñoom tamit ñu yàgg fi te wér noonu la demee ci hôpitaux yi ñu fa tëdd tawat yàlla na yàlla saafara leen ñi nga xam ne itam ñu ngi ci prison yi yàlla nañ fa génn ak jàmm képp ku nekk ci tolof tolof na la ko yàlla teggil ñu ngi leen di ñaanal xam naa fàttewu leen ñu ci ñaan ngeen ko xamee seen émission bii di ndénkaane dellusiwaat na ànd ak yéen ñu ciy ànd ak yéen altine ba alxamis ginnaaw bi ñu ñaanalee tamit ñi nga xam ne jóge nañ fi ñoom ñëpp ñu wax ay Seyda Adama sekk bi tamit yaa layta qawmi bi ma xafara li rabbi wa jaalani minal mukramin ñu ngi leen di ñaanal kenn dalal jàmm na ñëpp nekk ci jàmm non stress lañu wax comme niñ koy waxee euh, ñëwaat nañu tey lañu fa seenee tënk suñu tomb waxtaan bi ñu njëkkati woon oustaz Makhtar teew na ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal di la wax ni jàllaabe bi macha allah xam naa dina rafet tam ci euh, góor gu baax bàjjen liis macha allah <laughs> ah. moom laa ko solal <laughs> dëgg la bàjjen liis tam macha allah sa brodé macha allah nice na trop musóor gi rafet na caama tam macha allah yaay oustaz Mohamed Diop moom tam macha allah ak sunu invité bi tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax monsieur Wane ñu ngi lay ziar bu baax an ka Haalpulaar. eeyi eh, komi haalpulaar mbaɗɗa no <laughs> mbaɗɗa tam fek aɗa selli jaam tan ni modou mbacke mi ngi studio de modou mbacke ya seyda assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah dafa mel na nga xaw a wàññi ya seyda bi ni nga koy ni nga koy waxee ni ko doon waxee moo gën a foor démb ak eh. barki démb tey ah. xawma tey mbaat damaa xaw a tàmbali xaw a di. wala kaañoo yi la xam nga waa kii ñii dañoo xaw a mën a kaañoowaal tuuti. déewul laay dama yaakaar ne allez coono bi fan yi waaw waaw ni ma njatte. Ah. gëj gee noppalu xëy na. massa massa. waaye daañu pere ba bu ñëwaatee incha allah. waaw gën a ànd ak forme. xëcc ko de mu xaw a xëcceeku tuuti. ba bu ne yaa sayda <laughs> ñëpp yëg ko. <laughs> d' <laughs> ñu ngi lay ziar. jërëjëf tabarakalla yi tey fan la ah. génn ak ñun. waaw di nuyu sa gan gi aussi. Euh, waaw monsieur Wan Momoulem. di ab borom xam-xam sociologue bu am solom dëgg la euh, mas na jaar diisoo. Mhm. Euh, waaye macha allah lépp waxtaan la woon am solo ngir Sénégal. dëgg la macha allah seen waxtaan dina am solo incha allah. dëgg la yaa seydaan ni nga ko waxee. yëglekaay yi xëy di génn sakkan na macha allah bu nekk la ko ñor laas moom dafa xëy ni bëcc li ay njàmbat ci ci biir réew mi. ca mooy mbirum xalifa Sall député maire yëgle kaay bi ni fi ñu toll ni tembe tey la tey lu waaye doon jaay tey mu lamb wuri wa dem na këng waxe mag dem dañ caali Khalifa Sall ca kanamu attekaay bi yëgle kaay fi ñu toll ni tembe nag mbir ma tax na ay jege ñaaleem kenn ku ne ngay wone naqaru xolam nee ñu mbirum politique moo ko lal ci wet ga france mom melni kuy jappelé ki di khalifa sall maire paris bobé dal di fi yónnee lu tollu ci ñenti avocat yu france ngir dimbali ki nga xam mooy xalifa sàll boobee fekk na yit ñi di nguru président Macky Sall ñom ne mbirum dal colonisation jeexna na tuba bi génne seen loxo ci doxinu sénégal yele kay bi tay mom faaw mu tang faaw mu tar khalifa dina taxaw ci kanamu kay bi le quotidien tam fa la jaax ya say daaj ci walu guni mel momi dafa xeyé mbir mi nga xam moy mbirum khalifa sall mom lém le kay bi ni khalifa de ma ngay dox jëm ca pale ba waaye nag ban palais palais de justice ci la Khalifa Sall jëm tey jëlee yéenekaay bi li fi ñu toll ay avocat moom nee ñu li man di am mooy dañu jalgati li nga xam mooy àq ak yellee fam moom xalifa Sall mile dañu koo jaay doole ba ko noggatum ndax daal ki nu fal ci bopp réew mi moo jàppee boppam buur ku wax mu dóor def ci kaso bi waaye xalifa dañ def kem kàttan yëglekaay bi sax yokk na ci ni fi ñu toll tembe maire Paris boobee daal dinay créé benn observatoire buy dimbali lii di ay maire yu nekk en danger nag gis nañu daal bari na ay maire yoo xam ci Afrique ñu ngi leen def naka su noonu taxawal na kuréel boo xam te ni bi ay avocat ñoo ko ŋànk ak ay boromi xam-xam ngir dimbali ñii di maire yi ne ci ay jafe-jafe Les éco yaa say daatam ci la jaax ci wàllu guddi mel mbirum Xalifa Sall yëglekaay bi nee na fi ñu toll ni Xalifa Sall face à son destin maanaam daal ëllëgëm ci la Xalifa Sall jàkkaar lool dugal yëglekaay bi dana ca génnam du ca génn lu mu ci maa doon dugg na ca yëglekaay bi yemu ca yokk na ca ni am na ay thème yoo xam faaw ñu woo leen ku mel ni Moustapha Niass Ousmane Tanor Dieng Idriss Seck Lamine Diack Abdoul Mbaye Habib Sim dañu leen woo en tant que témoin ci attekaay bi yëglekaay bi yokk na ca ni bu fekkee atte dina am moom faw mu tar ca itam gis na ni mbir mi mën naa gudd mën naa yàgg ginnaaw les éco ya L'observateur Tom la jaar ci wàllu mel mbirum Khalifa Sall le bi ñëwaat na itam ne Khalifa Sall face à son destin maanaam daal fi ñu toll tembe Khalifa ana fu mu nar a jëm ëllëg ci mbirum politique waaye tam mbirum loxo set yëglekaay fi ñu toll tembe nag maintenant xam ni juróom-ñaari mbir yoo xam ne koy tuumaal moom kii di Khalifa Sall moom le bokk na ci ni daal luubal association de malfaiteurs ak la ca aju loolu lépp yëglekaay bi ni bokk na ci la ñuy toppee Khalifa Sall ab daal kuréel la yor goo xam te bi def na ko sur noonu ko ci koom com bu ñëpp bokkum vox populi itam ca la jaax ci wàllu mel nee na tey bisub dëgg la ci Khalifa sàll dëgg dina jipp lan koy tuumaal toll na ci benn milliard ak juróom-ñetti téeméer ci ay millions francs fa un milliard huit cent million ñu ngi nag fi mu toll nii tembe Khalifa Sall da ko luubal moom la log ni muggum faaw mu loggi wala ñu bës ko mu gëq yëgle kaay lu ñu ci mën di xew tey la tey ca kanamu attekat bi enquête moom di ñu xamal ana kan mooy juge bi war a atte ki nga xam moo di Khalifa Sall moo même kooke mooy màgget Diop Maguette Diop mi yaa moo jiite woon UMS Union des magistrats du Sénégal bu yàggu la joxe léegi yi Maguette Diop moomee daanaka ma nga génn ca ENAM ci atum 1997 yëgle kaay bi ne la koy xaar ci mbirum Khalifa Sall nag lu diis ci moom la waaye nag moom Maguette Diop duguleet muy yore ab atte gu diis ci loxo jëm ci wàllum politique ndax mbirum Jombaas jaw mu nga doon dégg ay jamono ak mbirum euh, Toussaint Manga di ay waxambaane PDS moo doon àtte seen ay dossiers lay kaay bi ni ku am xarañaay la ku dal ku ñëpp xam ci ànd ak sérénité Libération yaay Seyda moom itam ñëw ci beneen mbir moom ma nga ñuy xamal ni am na daal ay nit yu nu gis ñu jege loolu Karim Wade ma nga ca mbirum doomu su góor gi Wade Karim ma ca yi lay kaay bi ne daal am na ay fonds yu versé atum 2006 ak léegi ci mbirum xel gu ni woyé d'apport mom nak d'apport gog dal dañu japp ni Karim da ca amee jege ñaale waaye li Karim ne enquête ba ngi wéy dim duñ ci bañ ba ci sax dal di envoyer ay commission rogatoire manam moy ku xel yo xamanteni bi dañuy wër ak yeddo ke lañ bëtt di xol mbir yi lan mo ca am lan mo ca doon lun lubal ni ay koppar yëgle kay bi ni président Macky Sall nak ba ñëwé ba légui mi ngi top alal ju lewut ji ay samba boy rënk lank bañ ko rinkim directeur voya sayda ma nga ca benn soxna muy député Woré Sarr yële bi nim Woré Sarr daal la waa directeur fa tànni mooy meilleur député bi nga xam ni bii taxawaayam ci euh, pencum ndaw réew ma kenn du ko lam-lamee teewul tamit yaa sayda yëlekaay kaay bi ñëwaat na cim ab directeur école bu xaru mbir maa nga amee ca Bignona dafa takk buum ci baatam daal di ñàkk bakkanam ya sayda estat momit it ma nga ca mondial ba wara am ca russie danaka fek wer yu new yele ya, kay bi ni senegal nak mi ngi tambale nam ay jajjam dem ci xex bim attaquant yi sadio mané jaw balde kayta jafra saxum yëglekaay bi ñii daal ay jàmbaar la yoo xamante ni bi ñoom la équipe bi yaakaar donte Cissé moom itam mi ngi préparé préparation ba mu solo jëm ca Russie sunu làmb yaa sayda moom it ma nga ca làmb ja diggante Modou Lo ak kii nga xam si rek moo di Lac de Guiers 2 yëglekaay bërki démb de Modou la xëye woon mu ni Modou Lo fi mu toll tembe moom dafa samp juróomi liam ay barab yoo xam fa lay entraîné ci biir Dakar donte kenn xamul fan ak fan la Lac de Guiers 2 la seeti tey Lac moom nee na Modou Lo daal woon a naar ci guuxum soow defante la bëgg faaw ko ñi naaw dana am bëreem dana am xeex waaye tam dana am technique yu lekkaay bi ni Modou sax fi mu toll nii Lac de Guiers 2 nee na dafa bëgg gaaw defal ko bagage tàqali ko ak moom ndax waxam dafa bari ca faaw Lac de Guiers dana upp gimiñu Modou Lo ba faw ah danañ dem ci làmb jay bàkku de jóge fa bàkku moom moo gën yaa seyda nag dangaa commencé dégg olof waa maam Alpha Camara yàlla na ko yàlla yërëm. ndeysaan ma ma doon jàngal olof. wax na dëgg. <laughs> ñu ngi lay ziar bu baax ndax nee ñu bëree. reeru puloox la kenn xamul fu muy demee. kenn xamul fu muy demee. kenn nag foo ko foogul na faa demee. dëgg la li nga wax dëgg la. jëm ca laamu jay bàkku moom. waaw jóge fa di bàkku nan bàyyi ba jóge ca laamu ja soog a bàkku. moo gën a wóor. yaa say daa jaajëf ñu yendu jàmm. waaw coono bi moom nañ la kii defaral supp bu baax rek. waaw waaw def ci yaa say daal li ngay wax lu am solo la de. waaw dina baax ci yow ngay wax nii lu am solo la. dina baax ci yow. mbaa du ay piège. déedéet jàpp ñi ngeen bi ci roq bi. ña nga sant. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Modou. jërëjëf jërëjëf ñu yéen doog jàmm. jërëjëf merci jërëjëf Oustaz Matar. ah man de ki xaru ndeysaan yéeme na de xaru xam nga nag ndeysaan gëm daal yal nañu yàlla may taqwa ñu am imaan am gëm. du solution xaru waaw du solution. ak problème lu mu bari bari daal xaru moom. moom mooy dernière chose moom yal na ko yàlla jéggal te yenent bi nee na ku rey sa bopp ci dara mhm. ëllëg moom nañ lay mbugalee ci safara mhm. Mhm. lu manti xew rek xaru moom bu mam dëgg saxaaba xeex na ñu gaañ ko ba mu sonn mu jekkali boppam ñu wax ko yenent bi mu ne safara la jëm te saxaaba la woon te saxaaba la woon ndax dafa njëkkantoog yàlla dafa waroon a bàyyi yàlla jekkali ko waaye waruloon a jekkali boppam dëgg la euh, benn xadis rek lay commentaire hmm. parce que revue bi li ci ëpp hmm. mbirum xalifa sàll la hmm. dafa am benn saxaaba bu ñuy wax Burayda ah Burayda dafa jële ci baayam baayam jëlee ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi ne àttekat yi ñett lañu Abu Daawud moo soloo xadis bi xadis bu wér la ñiy àtte Sénégal gépp ngi leen di déglu nu ko raw la leen borom asamaan ak suuf di dégloo alaysa allahu bi ahkamil xaakimin kuy àtte yàlla moo la daa xaate mhm. yenent bi ne àttekat yi ñett lañ sallallahu alayhi ñaar ñi mm. safara lañ jëm kenn dong nga ci dem àjjana ci ñuy àtte ci ñuy àtte ñett juge am benn juge sa ci dem àjjana ñaar ñi safara lañ jëm ñu ne ko yenent bi kan mooy dem àjjana mu ne juge bi nga xam ne jàng na ba am xam-xam bu ko may pour mu àtte mu samp di àtte àtte ci dëgg àtte ci dëgg li Maxtaar sekk Mboro di wax ne mandat du toxal mandoom hmm. amul kenn ku ko mën a manipuler ba mu àtte lu dul dëgg hmm. nee na kooku àjjana la jëm ak ki nga xam ne ñaar ñi jëm safara kenn ki mooy ki jàng ba xam lan mooy dëgg waaye bi àtte jotee manipulé nañ ko wala ñu xupp ko wala ñu nger ko ba mu àtte lu dul dëgg te jàng na dëgg ba xam ko yenent bi nee na kooku safara la ñëm keneen ki mooy koo xam ne jàngul leen dafa falsifier ay diplôme am tappale di woote woone mën na àtte toog di àtte donte mi ngi jéem a àtte dëgg waaye xamul dëgg wax ne man kenn du ma ngeer damay àtte dëgg te xamul lan mooy àtte nee na kooku safara la jëm kon benn àttekat bii jëm àjjana nañ ci bàyyi xel mooy jàng dëgg mm-hmm. xam dëgg di àtte dëgg ak lu ci mënti am mm-hmm. nañu bàyyi xel ne coow li fii la yam mais mbir yi ëllëg yomal xiyaam lay leere waaw loolu da am na bu pënd ba wuree ku mm-hmm. waroon mbaam danañ xam ku waroon fas danañ xam ku waroon ginaar danañ xam te sunu borom tabaaraka wa taala ëllëg lu waaye àtte mu lëndëm dana ko àtte at mm-hmm. ndax moom mooy àttekat bu mag bi nga xam ne moom nee na maa dàq àtte ñëpp mm-hmm. defee loolu rek lañ ci wax ñu bàyyi li ci des ak ñi ci des macha allah li nga ci wax am na solo Badi Louise waaw soxna Zeynab euh, may nuyu professeur Wane nga xam ne xam nañ ko dëkk bi yëpp xam nañ ko mm-hmm. ci wàllu ci li muy liggéey donc revue de presse bi li ma ci wax mooy muy ñaawlu déjà lu xew Kolda xaru moom duñ ko rafetlu ci ci ci dara mhm. quelles que soient les raisons du solution le coup, ça se di et le loo beaucoup de fait à defee ci àdduna ñu mhm. jarul donc affaire du Khalifa Salibi, bi tamit ñu hein. on dit enfin procès am mhm. au moins commencé on sait aussi qu'il y aura beaucoup de renvois naturellement est-ce que ça va aboutir à quelque chose on sait pas encore mais Alhamdoulilah bu mu commencé we ñuy wax tamit ne Sénégal yëpp ñu ngi donc il faut une transparence Je suis may ñaan pour une fois que ce procès là soit un procès public. Mhm. parce qu'on a tous besoin de savoir. donc j'ai vu des 6 heures du matin tribunal avec donc j'ai vu que journalistes Simone et c'est un problème. Mhm. je pense que procès procès transparence

يا سيدي باي ميلف يا اخي نان لي خام nga dem اوس ما مرتا نينا موم مو خيو كيرو كي تم واي تي نان خليفه مو خيو خليفه سال تي دغنا امنا اي توباب نيو نينت توباب خامو نيت جوغي نان بيتيم ري نيو بور بروسي خليفه سال ميرو باري مو يوني اي افوكا نيو نيو اه جيسبر كا نيو نان دي ولا اكسي غو امنا كو نيو اكسي نان امنا كو اكسي دي نان دم سي تريبينال با نيو امنا ام pour mu leer rek xam nga mun na ñëw na te ñëw moom da yàlla na ko yàlla leeral amiin yàlla dimbali ko mu delluwaat ci kër ku ne xam ne kaso neexul dëgg la bu ñu mënoon a bàyyi nag ñu defi foofa ca lii foofa ko mën a dina gën a mën a leer ñu defee ko fan ci palais ba tribunal tribunal ñu fekke wala man ma ne ci palais ba man palais ba après nañ fa dem waaw palais defee ñu xam li leer parce que ñun ñu ngi fi palais de la justice la euh, ñu dem toog fekk hmm. journaliste yi dugg ak hmm. waa déet ñu xam li xew ci biir hmm. moom daal tey moom nee nañ dëggu vérité xanaa soo paree fa nga jëm yow moom ay mbokkam yoo xam ne sama ay xar la ñu ma daan teral dëgg la yu daan teral <laughs> déedéet waxuma dëgg nga ay ay mbokk Khalifa Sall yu la daan teral dima ah waaw sama non man merci man maa la bëgg ñu ànd ak ñoom dëkk lépp teraangal waaw lépp teraangal bu dee ñu tëj la kon ñëpp la ñuy tëj doy na waar ah doy na waar Alifa wax dëgg yàlla manque te xam yàgg ko xam depuis PS laa ko mhm. ko xam benn mhm. benn parti bëreegul nii de dëgg la bi muy nekk ay ay ay kii nii mhm. parti yi bëreegul na benn fiche ko fàtte indi leen ko fi mu jaar si nag ma pare nga sama bagage gis naa añ fu ma pare boo pare fa nga jëm waaw après nga jox ñu compte rendu ba leer nañ waaw incha allah d'accord euh, monsieur Wane ñi ngi lay dalal jàmm di la ziaraat beneen yoon ne du ko bandum ah?

lu xaru kii mm-hmm. dañ nekk ci jamono da xam ne dañ banaliser dee war nañ ko geestu mm-hmm. lu saas wax sax dëgg la mais su demee ba nga xam ne dëkk mm-hmm. religion nekkutul frein ci ñenn ñi te ñu ngi commencé di bari Sénégal am na phénomène yu fii xew daaw loon xew nit taal boppam loolu daaw fi woon am déedéet war nañ ko geestu Euh, Ray aussi ni ñuy ni ñuy nu ñuy reyee dafa nekk lu doy waar day facilité la donc suñu société amna lu ci suñu ressort yi ressort euh, bu may wax sur le plan moral ak psychologique euh, amna dal lu ci am problème war nañ ko euh, parce que société dafa war a dem ba nga xam ne da ngay bëgg di ko dund soo demee ba ne dangay ngay gàttal sa sa fan mm. am na la nga te mu ngi commencé bari mm-hmm. man su ma doon dirigeant politique parce que dirigeant politique tam loolu daf koy xool mm. de de de daa ko gëstu sëriñ yi tam war nañu ak religieux yi war nañ ko gestu mm-hmm. beneen bi mooy procès xalifa Sall procès bu doy waar la Khalifa Sall n'est pas n'importe qui C'est histoire man je politique ba politique Sénégal c'est la première fois ñuy jugé, arrêté, le maire de Dakar Dakar n'est pas n'importe quelle ville maire bi nga il gagné en 2009 période ba nga xam ne parti am nekkuloon au pouvoir opposition la nekkoon nit ñi sànnil ko carte mu am légitimité pour nga jàpp ko war nga xoolaat juróom war nga xoolaat lu bari. Hmm. Sénégal diñ gaaw jàpp. Hmm. temps yi rek maa ngi doon <laughs> def benn interview maa ngi wax ne ñun ñu ngi ci comme temps colon yi chef de nu ñu koy waxee commandant de cercle yi dañ ñëw rek jàpp la. jàpp hmm. ju nit. soo koy jàpp dernier. day dem ba nga xam ne amatul beneen solution. gis nañ en France. Hmm. benn candidat élection yu mujj yi bëgguma wax turam candidat la woon. Hmm. mais luñ ko doon reproché que bon pratiquement détournement xaalis parce que emploi fictif la woon mais dañ ko bàyyi mu def euh, élection te ba léegi kenn jàppagu ko. Hmm. loolu rek laa bëggoon wax. am na lu ngeen wax yëpp kooku moom demande sociale la. Sénégalais dootuñu nangu instrumentaliser une justice. Mm. parce que qui ci démocratie la démocratie tout d'abord, rek damay carte. démocratie il faut que ñetti ni piliers muy exécutif bi muy euh, justice bi ak législative bi de fonctionner loolu laa ci doon ki dégg naa de reporter procès avant ah ba may de. ñaan na ko yàlla defal jàmm ñu nekk ci prison yëpp yàlla génn leen ak euh, jàmm doy na waar na <laughs> doy na waar mais li oustaz Maxta wax rek yàlla daal moo dàq àtte inna laaha laa yaxfaa alayhi shay'un fil ardi wala fi sama yàlla moom umpalewul dara nit moom mooy xam lii ñàkk xam le mais yàlla xam na lépp te fekk na lépp ah kon waa jaratul ngay dem après naa la wax dafa am fu may dem après ñu ànd man ak yow ah, kon ñu dem <laughs> euh, marché euh, xool penda te ñëwaat léegi ñu dem xool Penda mhm. mbokku téléspectateurs yi nuyu nañ leen tey nag dañuy dugg ci biir marché bi xool ba jeeg la ñu war a àndandoo ci biir marché Zinc suñu rubrique au marché ñu dugg ñu xool

togal ñu ceebu géej ji xaar ñu jox suñu dépense waa tey de fii laa fas yéeneen duggee sama ceebu ji waa ceebu bi lan ak ak bon yeneen géej yi ci dem waaw Marème yow dafa melni sa jarul ngay xoli fenen dafa melni li ngay jënd yëpp amna fi. waaw wax deug yalla limay jënd yëpp amna fi motax heure may togg ci bu du duma dem fen fi rek lay ñew jënd benn. boo ñëwee ci benn place di nga ci fekk li nga soxla yëpp. na fekk li ma soxla yëpp. Thank you. léegi nag tey dañuy ñëw xool leen la dañ leen di ànd ak yéen ngeen xool bien fin wu ñebbe mais ñebbe dafa am trois façons dafa am ñebbe ndut am ñebbe bu xonk bi mooy ñebbe Nigéria am ñebbe Fuuta léegi nag pour ñebbe dañu bëgg a xam lan lay def ci ya ci don ap ñebbe bo ab haricot ou xam mën na ñuul weex wala sax xonk mu am nak ay yu ci yaram mu am tamit ay vitamine yu bax yo xamné mën na gëna a suñu walu wér gu yaram wani na nak ci li nga xamné da koy def ci yaram cholestérol bi bi nekk suñu deret surtout dina tax tamit ba ñu mëna so amé diabète mën nga di faral di bu dina tax mu yamale li di toowu bu ci sa deret du foofu rekk la mënee ci wàllu yaram tamit am na yu bëri yum la mën a moytandikul mel ni ci ay feebar yu jëm ci wàllum estomac bi dina raxas tamit lépp lu jëm ci sa intestin yi waaye li ñu gën ràññee ci lu baax nga xam ni ñebbe da koy def mooy soo bëggee jeex de ko jëfandikoo bu baax ndax ferñeent yi ci nekk dina tax ba tey ji lépp lu ëpp ci sa yaram dina ko dindi. Marème lan nga soxla fii dafa mel ay légumes ngay jënd si de. ay légumes laay jënd si ah carotte poivron oignon ñambi ak supame ak batañse ak limon. ak euh, jaxato dama naan salaat waaw bo xolé sama jéeg ji xam nga ni xol leket bi xam nga ni ndugg nañ ba paré ki mom tay namul dara mais ceebu géej bi koko wara yakal ah xana diko rek yakal sama rak ak samay dom rek mhm. mais loo wax ci li yok dépense bi TV lan nga ci wax ak émission bi ndénkaane xam nga ñun dañuy yété man daal xana kontaan ci rek wax dëgg yalla ndax vraiment xam nga li aussi di dem marché ngén dab ma jox ma dépense ma ndugg lu riche tamit dama ci kontaan rek té vraiment aussi TV

mu tassé ku togg nak plat bu am solo eh, ci bu gi mom plat la bo xamné amna solo ñom tonton wan xam nañ ko surtout bu dé géej yass al alpulaar di ñom dañu bëgg géej yass ma sha allah ndax dafa neex te plat la bu riche itam Oustaz Makhtar te ñebbe xam nga dafa am vitamine dafa am fer dafa baax mhm. te yoo xam kéro go xon nañ ci dañuy bayé lek lekkaloog bi ah caama mom dana ci mëna am expert la ci ak ko mëna togg néna ah, lek rek laay wax ah. ceebu ñebe moom dafa neex. dafa neex bu amee ñebe bu tooy. Hmm. neex ak géej ak yeneen géeju kon bi dafa neex. waaw nga tëmbal si say kaay ak xuluñi. Hmm. neex na nga tëmbal bi sax la gën a ne ndax tàngut. Hmm. xam nga taawu tàngaay géej beeg tamaate beeg ñebe mun na kii tanché mais seddaay. loo ci lekk too def dara. donc maa fa ñoo yem. dafa am togg yoo xam ne pour seddaay la. dëgg la. tonton ah, bind leen ci téere. waaw <laughs> tonton loo wax ci plat bi. ah man kay boo ma déggee mu wax. Euh, su ma mënoon sax téléphone ne nu changé menu bi. tey toggal la tey waaw. waaw mais nag euh, maa lay promettre suba moom lay lekk. parce que man Haalpulaar laa mais Ndar laa juddoo. dëgg la <laughs> <laughs> su may làkk pulaar nga may xoolaat de ah. non damay parce que xam man sama yaay Haalpulaar la. ah ma yaay sant donc. Euh, macha allah. ça c'est c'est mon donc man lumay wax damay bay ceebu ñebe bi sax te wax ne Sénégalais yi bëgg na ñebe. Mhm. mais xamuñu vertu ñebe trop trop trop. donc juste rappeler que en si plan au santé que mhm. ñebe dina faj plus de 10 maladies. lan dina faj kon xanaa kon akara mom kon neex na baax donc euh, ñun euh, ñun jigéen sax mm. euh ñebe dina faj infection vaginale. ñebe kese ñebe dina réguler sang. ñebe mm. dina dina dina faj diabète dina fajj diabète ñebbe amul sucre dina diabète pourtant dina problème cardiaque. ah der. donc pour dire que nañu gëstu bu baax ci donc pour juste pour dire que bi ñu façon haricot bu rouge bu ak bu gris vertus plus de 10 eh, jangoro dina der. dina diabète eh, infection vaginale.

naka naka naka foofu fu ngeen toll ci fu yëf yi toll. dañ ko renvoyé. ba 3 janvier. li ko waral nag nee nañu procureur moom moo moom moo avisé wul. moom moo ah. avisé wul euh, avocat Khalifa Sall yi. Mhm. parce que xam nga avocat yi dañ nekk euh, partie ci procès bi. Mhm. donc procureur dafa waroon jël ay matukaay. avertir leen jox leen wax leen ni daal le 14. danañ àtte kii di seen client di Khalifa Sall loolu nag procureur defu ko juge bi loolu la xam ne. ba tax nag procès bi. ay avocat bi ñu ñëwee taxaw ay avocat ñoom dañoo laaj rek ñu renvoyé procès bi parce que ñoom kenn yëgalu leen ci mu toll tenn nag tribunal fees na dell ak mbooloo. waaw ba léegi sax mi ngi mi ngi wéy. xanaa ma joxe rek en direct Maître El Hadj Diouf. waaw d'accord jox ñu Maître El Hadj Diouf Maître El Hadj Diouf. bokkul xam nga nit yaa ngi koy tëkku yaa ngi koy jaay doole waaye kenn ci am doole tabaraka wa taala kii nanu kii àtte moo daan àtte bi seetaan rek di ree waaye su ñëwee dina nañ te yelwaan tey dafa tuur allo soxna Zeynab de dégg nañ ko doy na waar ñii de moom euh, mhm. donc nag mi ngi jox public euh, bi ak euh, ñëpp rendez-vous le 3 janvier fii ci tribunal bi tribunal xam nga moom mooy àtte ci di Khalifa Sall mhm. ci mbirum caisse d'avance bi nga xamante ni mi ngi ko doon gérer xam naa daal li ci gën a fës ci tribunal tey loolu la mooy renvoi bi xam naa dana ci gën ñëwaat daal ci ay image ak ay son pour yeneen détails euh, waaye daal jàpp leen ne tribunal tey na dafa yàlla lañ ko andi fii ci tribunal bi. Codé yaa ngi woon ci salle bi jotoon nga dugg wala. salle bi nag soxna Seyna xam jël ngir àttee kii di Khalifa Sall. Mhm. te xam ngeen ne salle boobu mënul contenir tout le public bi biir bi. Ah, am na ñu bëri ñoo xamante ne nii daal nañ koy métti lu moom mooy ñu bëri taskati yi dañ taxawoon ci buntu salle bi. Mhm. pour ñu entré ci mhm. la ko waral moom mooy a fees. Mhm. public bi ñëw occupé gis Khalifa Sall. non ñu bëri ñëpp ñu entré bi. bokk na ci euh, nit ñi ay kooku yu bëri yoo xamante ne également dugguñu woon ci biir salle bi mu nekk loo xamante ne ni presse bi bu baax a dëgg la parce que Sall avocat yi nga xam ne ñoo waroon jógee France est-ce que egsi nañu. waaw ñëwoon ah, tubaab yi tubaab yi laay wax ñi war a jógee Paris ñi nga xam ne maire Paris moom moo leen waroon a envoyé fii egsi nañu wala. waaw foofu lañ toll dugum tey ñoom euh, seen leen ci ci ci parce que xam naa ne ñu ci seen ay euh, procédure ngir euh, constitué mm-hmm. nekk ay avocat Khalifa Sall bokk itam ci procédure xam naa na waar dañu ngi lay jaajëfal ñu yendoog jàmm merci beaucoup. maa ngi lay fay lu toll nii ñëpp yëg ko am ñu ne yëguñu ko nekk ay avocat lii moom. <laughs> <laughs> lii yéeme na de léegi nag. kenn xamatul lan lay nuróol man xam bu ñu commencé ba duma ciy wax sax des fois da ngay préférer sax xaw a maandu yooyu mais nag <laughs> ku gis nen ne nen a ngi ah gis nen ne <laughs> xam nga ca ginnaaw defe naa émission bii passé talaata wax naa lu ko xaw a jege wala la ko jiitu woon sax mooy léeg-léeg sénégalais yi dañuy yaakaar ne dañuy nelaw fekk yeewu nañu daa fekk nag du ñu jëfandikoo doole wala yenn yi dañuy toog rek préféré di seetaan ak it delloo lépp ci yàlla. Mm-hmm. waaye kuy jëfandikoo sa xel rek da nga xam ne liy dox dëppoo na ak li waroon a dox dëppoowul ak li waroon a dox. mooy ku ànd ak yow. Mm-hmm. ca jamonoy Senghor ba fii mu toll. doo gis mukk ko ànd ak nguur xëy ñu takkal koy pot yóbbu kaso. fu mu amee rek day fekk mu jiyoog nguur gi. génn na wala nàngam mais ku nekk ci nguur ñu def enquête.

Euh, yóbbu nañ ko ci beneen dëkk duñ ko nanguwaat nag wax dëgg yàlla. Mm. tonton. <laughs> ah man euh, noo ko c'est-à-dire euh, man tey tey tey man dafa dama am lu ma naqadi daal parce que fu ma yaakaaroon fu ma géntoon démocratie Sénégal mu yegg fa am na daal li nga xam ne dama ci am déception. parce que l'appareil d'État aussi la justice nous ne ko tout le temps utiliser Et xam nga homme politique phénomène boo gis day am lu wax apparence parce que nous, ñi lisons, am lire. lecture que instrumentalisation politique est ngi ci parce que nous, bàyyi que Khalifa Sall est un futur candidat présidentiel nga nekk futur candidat présidentiel ñu jàpp la day am lu muy nirool te ñu bari parce que lecture dafa am lecture politique sénégalais bi nga xam ne jàngul sax jàngul arabe jàngul wolof jàngul alpulaat jàngul français yàlla may na ko moom capacité tout de suite mën a lire da ngay déglu rek sa wax si xalaat des fois da dégg ay nit yi xam ne wax la nga xam ne même ki nga xam ne science politique la génn du ko gis. Mhm. Euh, am na nga xam ne rafetul daal ci ci deru démocratie Sénégal. Mhm. man euh, euh, xam nga nuñ dañ yàgg di xeex. Mhm. man maa ngi jógee 68. ñu nekk ay xale yu ndaw. lycée waaw. di xeex. boobu tam benn parti unique moo fi amoon. benn journal <laughs> amuloon télé benn rajo donc muy xeex démocratie am lu nekk def nañ ñu ko jàpp nañ ñu tëj nañ ñu def nañ lu nekk mais yàlla rek ah, ak mbiram moo tax ba léegi man ma toog fii ak ñeneen toog di nga xam ne nu ngi fii ci dëkk bi nekk responsable mhm. donc nuñ suñu yéenee moo doon euh, nit Euh, démocratie bi nekk démocratie comme nu mu wax nii sooy looy def rek nga teg ko ci yoon. Mhm. parce que loolu moo ñuy permettre d'avancer maa ngi ñaan. Mhm. man su doon sama sago maa ngi ñaan que véritablement pas mu am lumière. <laughs> parce que dafa doy waar procès politique parce que munoo jàpp nag maire de dakaar ba pare ne du procès politique. <laughs> kooku munul am <laughs> moom munul am. Mhm. donc yow ci sa imaginaire nit la communication suis man mi ci sama nga quand même amna xam ci xam politique maire de Dakar ba que simple nit la bon etc. bon maintenant lu ci gannaaw su doon sax transparence bi ci ñepp lañ koy yoon amul man sama kër dama mais kër jàmbur euh, <laughs> sama sama ni ñu koy waxee voisin nga baal ma nag xam min ko mi Haalpulaar eh. des fois damay ala problème waaw waaw donc euh, sa sa sa euh, sa sa voisin sa dëkkandoo ngay dem këram di régler ay problème non ah. premièrement deuxièmement Khalifa Sall yàlla yàlla du def dara la nga xam ne Waro ci def lecture. yàlla amul hasard. <laughs> waaw amul hasard. Mhm. deux jours a ngi nii nu teg commission xaw ma nu ne eh, nan la tudd dialogue eh, dialogue politique deux jours après nous juger Khalifa ba pare ñëpp waroon na ñëw ci dialogue nit nit la man munoo japp sama nit ba pare ma ne damay dialogue ak yow. Mm. parce que gis nga nit kitam tam dafa am ay éléments subjectifs. Mhm. <laughs> dina am malayka ay nit dong lañu. Mhm. donc man yaakaar naa ne rafetoon na ñu créer condition ba nga xam ne day favorable mu am dialogue politique te loolu bokkoon na ci condition yu ñu waroon créer. dëgg la kay ba nga xam ne ñëpp dañu bokk. ci mm. dialogue politique. Mm. voilà la merci. Thiam am na loo ci ah mais dama bëgg ustaas yi nga xam ne ñoo yor réew nank ko. te xam nga mm. ñun ay nit nitu diine lañ. waaw parfois ñuy toog ak nit di leen wax lu yàlla wax ci affaire yi. Mm-hmm. pour ñu suñu xel. dëgg la ndax parfois defe naa ñun dañuy am dañuy xaw a yëg foo xam ne xamuñu ko il faut ñii ñu leen di boole ñu ñooy teg ñu leen di delloosiwaat. ndax buñ tourné kaset ci ginnaaw tuuti. Mm. nguuru suñu boobu rek moo dul jeex. dëgg la. oui. Mm-hmm. président dina wàcc. Mm-hmm. ministre déggoon ne mm. ancien sëriñ rek du dégg. waaw dëgg la. waaye ancien ministre am na. Mm-hmm. ancien président ancien waaye ancien sëriñ. sëriñ ba illaa yomi diin. ancien animatrice. ancien animateur la mais moom. tooga rek jàmm rek nga am un jour viendra waaye nag bu ñuy fayu hmm. bu kenn wax lii de hmm. comme léegi Sénégal dañuy fayu hmm. te ku am ambition ñu tëj la sa place bi su ma ne woon fii laa bëgg a toog nga faagaagal ma xalifa bëgg du ma faagaagal man yow doo ko wax sax waaye suma ma amee ambition ñu tëj ma su ma bëggee dem ci kaw ñu tëj ma kon léegi nu ñuy dem ñoom arrière kenn ut ambition doy nañ toog doy na waar la waaye daal oustaz yu mag a magi ak crédit ne ah. war nañu waxaat ak ñu ñu tax ci wax nañ ci wax d'accord nañ ci wax <laughs> léegi dañuy dugg suñu thème bu ne kii rek ñu dugg suñu tomb waxtaan mer naa de tey moom mer caama ma bëri sax ma ko yërëm de ah, tey dañuy tënk suñu tomb waxtaan bi nga lañ ko doon waxtaan bu xaw sensible ndax nitu diine kuli xisbin bi ma la day him farihun <laughs> nit ku ne ca la ngay yëngu ca ngay bége tax mu sensible mooy doo nekk di yëngatu ci diine di yëngatu ci alquran ñu bëgga jël ay tuuma di ko teg ci sa kaw nga toog noppi man ta nekk tey lañ koy tënk ñu indi fi nag tey benn kàngam ñu ko Lise waxee suñu tonton bi nga xam ne tonton war ñëpp xam nañ ko sociologue la xam-xamam màcc ci domaine yu baree bari ñu doon waxtaanee yelwaanuk xalé yi xalé yi nga xam ne dañoo nekk ci mbedd yi comme enfant de la rue tay def na naa Sénégal foo tourné yaa tassé ak ay xalé li ñuy wax ni mbuusu toal ak jigen ak xalé ñoo gëna la tassé Sénégal fo dox taseeg mbuusu toal fo dox taseeg jigen fo dox taseeg xalé bu ndaw ñu bëgg nak xalé yi waat ndax mbedd du sen place mo taxoon ñu yëkëti tomb waxtaan bi joyé luñ ko won sax ci daara ndax jangum alcorane tax ñu wona jokk ci waxtaan wi wax ndongal daara tamit tax ñu wona jokk mais xale lañ doon wax mais lu oustaz Makhtar wax keroog boo ko yëkkatee rek boo nee yalwaanum xale rek xale yi xel yëpp dem ci daara ndax fondement bi cosaan bi moo di ne ndongo daara yi ñoo daan yalwaan tey dafa am ñu ci wàllu si te bokkuñu ci ñooñ ñoo xajamal yëf yi moo tax mu doy waar tonton wan nan nga gisee Sénégal fi mu toll ak xale yi ni ñu tasaaroo ci mbedd mi yaa ngi dégg ay organisation yu bari am ay nit yu bari yoo xam ñi ngi yëngatu ci wàllu protection de la enfants léegi nag lo ci xam. à question ak euh, que seen euh, chaîne bi def sujet parce que yàggul premier ministre du Sénégal dafa def déclaration de politique générale. pendant deux heures de temps député yu wax def nañu presque plus de quatre heures su ma juumul su ma ko wàññiwul ma déglu ba pare ma ne waaw mais kii wax na ba pare waxul xale yi nekk ci mbedd yi di yelwaan waxul protection xale jigéen yi nga xam ne dañ leen di jël comme bindaan mais teg leen jaam am na ñoo xam ne sax ñenn ñi ci temps yi ba ñuy wax affaire migrant trafic illicite migrant yi mhm. dem nañ ba dugg ci affaire xale jigéen yi nga xam ne ñu ngi nekk ci yenn pays yi ma dellu si ci xale yi Sénégal foo tourné mhm. dëkk dëkk bu mag muy Ndar Ndakaaru Kaolack Thiès damay jàll dëkk yu ndaw yi ay xale yu yalwaan mhm. pendant ce temps ñeneen yaa ngi jàng ci école yi heure bi nga xam ne premier ministre bu muy wax déclaration politique générale générale am mhm. xale yu baari ngi yelwaan ci mbedd bi te yelwaan bi ñoom teguñu ko seen bopp de dañ leen ko teg mhm. loolu mooy problème bi parce que nee naa la gis nga nit ki soo amul fit mooy li nga doon wax sànq rek mm. ak soo yàlla may na la xel ba nga xam ne da war a xool fan la ñuy teg man Sénégal laa gis ci adduna bi ba mu daj xale bi nga xam ne dafa war a wuti xam-xam. Mm-hmm. ñu ne ko damal indi téeméeri dërëm. moo jaaxal ñëpp. soo indiwul téeméeri dërëm ñu duma la. Mm-hmm. xam ne xam ne dañ leen di jéng tey ngi wax Libye mais am na fi xam ne ay xale xam ne dañ leen enchaîné teguñu ko fen yaa ngi dégg. Mm-hmm. donc c'est pas normal ma lool. premier ministre Sénégal boobu muy wax ak Sénégal buy wara ñew nu tudde ko bañ nañ ko ba nee nañu am nañu Sénégal émergent wa Sénégal émergent hmm. yo nga nek politique da ngay da ngay def lu ñu wax vision fi 30 ans est-ce que Sénégal dañ am ay xale yuy yelwaan wax muy xale yu yelwaan xale yu ñuy forcé ñu yelwaan hmm. parce que wax dafa am solo dañ leen di jël ñu jël ci man def naa enquête yu bari def naa recherche dañuy jógee ci dëkk yi. Mm. à l' du Sénégal am na xam ne pays limitrophes yi la ñuy jógee. Mm-hmm. indi leen. Mm-hmm. teg leen ci ay kër yu kenn xamul man du ma nangu sax def man ah, euh, nan lañ koy wax euh, xaar ou bien euh, condition yi nga xam ne xale parce que aussi nit ñi foog ngeen jël seen ay kii caméra di dugg ci yenn yi fu ñuy def xale yi. parce que mm-hmm. xale yi nekkuñu ci ay souterrain. Mm. ñu ngi nekk ci koñ def amul palanteer amul buntu xale yi nekk condition doo sangu doo soof so mhm. Mhm. loolu kenn waru ko nangu du ci sunu diine du suñ cosaan aada aada Sénégal tey suñ ne dëkk taraanga la taraanga yi tam war na ñëw ci xale yi mhm. léegi nag yaa xam en tant que yow nga xam ne yaa yore état en tant que parent, en tant que responsable famille, en tant que citoyen yow miy des fois c'est un yu bari l'islam santu leen ko <laughs> am na ba nga l'islam santaane na ko mais dañ koy organiser depuis république Médine dañ organisé. organiser bien <laughs> bi nga xam man foofu laa jógee mm-hmm. <laughs> ba mu l'Almamia mm-hmm.

comme yow ni nga nekkee père de famille ou mère de famille ya waré dem muti, indi jox xalé bi mu lek mhm. d'abord condition yu lek yi sarax lek ni do xam affaire bi lan la mun na leen indi intoxication alimentaire xale yi le fait que ñu bañ accéder à l'eau du sang tout bis bu nak da nga war sangu l'islam moy diine ba nga xam ne fu ñu set amul ben diine fuñ fu ñu ko fa teg mhm. ngay jaamu sa borom bala ngay julli il faut nga japp xali mu mun nañ un mois duñ sangu dañ gal. gaal yow da ngay mag ti ti ti par exemple milieu urbain mais gis nañ ci sax agression sexuelle so nekk ci mbedd mi ay xali yu goor gis nañ leen fi Nous sàkku leen sur le plan sexuel la la wax dañuy mag sans am lu ñuy wax affection mm-hmm. dañuy màgg ba nga xam ne par exemple am benn sentiment kenn toppatoowu leen état bi toppatoowu leen société bi toppatoowu leen relation ba nga am ak ñi yelwaan lan la de temps en temps nga sànni benn pièce temps en temps dem nu ne la wuy ñeenti guro fan lañu lislaam waxe ñeenti guro lañ ko saraxe nga jël perkaal kayit bu nan la tudd kayit bu ñu. xaw ma lan kayit bu weex tabax. tabax da ngay gis ku gaare nga dum kat kat wàcc vitre yi joxe yooyu dafa ruslu c'est pas l'islam. Mm-hmm. <laughs> dégg nga jékki-jékki benn nga dem nu ne la wala da ngay jël lii benn waay xoolal la ah war nga saraxe wut war nga wut kii saraxe na gàtt ci kaw nga lekk ko ci suuf nga dem c'est il faut nu génn ci loolu. logique bobu suñ ci gennul ba pare jël xale bi di instrumentaliser ba donc pour ñëw ci yow d'abord abord ci nga jamono bi yane société ñoro lu tax tey ñu nek fi ay télévision ñëpp di le suivre ñan ñoo produire lolu lu nuñ mënu ko produire te civilisation mu ngi commencé Afrique temps Égypte mu ngi ni portable yi dañ koy jariñoo même ñoom ku ci feebar fii ñu évacuer la France Nous, mhm. faisons la même même sëriñ yi Maroc bah Tunisie Nous, mhm. <laughs> qu'est-ce qu'on crée tu crois que jàpp ay xale des centaines de milliers d'enfants ñu passé dix ans de leur vie à manger nous ñan lañ mën a def mhm. donc pour man lu ñu wax déperdition capital humain te man am na loo xam ne injustice la demal fii da ngay ñëw gis xale yi yenn yenn endroit Dakar bugguma leen cité mhm. ne ñi jël seen 4x4 wàcc seen doom ñuy jàngi xale yaa ngi taxawaalu surtout sedd bi commencé si mhm. société bu amul yërmande ci xale ak ci jigéen société boobu mooy jël ndaare ci société yi dëgg la te violence bu ñuy teg xale bi parce que c'est kenn tegul dara ci daara daara su awee yoon bu mu war a aw xale du yelwaan nit ñi ñooy organiser ci quartier yi yóbbu ci daara bi gis nañ ko ndar ba ba ba ba daara yi jógee Fuuta premier daara yi ñëw ndar mm-hmm. ay sëriñ naar lañ woon ak sëriñ ay Haalpulaar mm-hmm. bañ fi ñëwee dañ leen teral waa ndar ay ndeyu daara foofu la ñu jógee man gis naa ay yi nga xam ne ñoom lool rek mooy seen liggéey mhm. dañuy dem ci daara ba jëlal xale bi fóotal ko da ngay ñëw ñëw ci benn kër mhm. foofu ngay ñëw añ ñu jox la añ mais du la jox ay desit parce que dañuy wax ne dañ lay former mhm. mais former am na ñoo xam ne sa duñ yelwaat mais yàlla yàlla yàlla mooy former nit yelwaan bi peut-être au début nuñ ko jëlee woon pour tagat xale beeg yooyu dafa changer parce que contexte bu nek bi moy contexte ba nga xamné dafa changer té yang ci Facebook té yang ci monde bi mo changé mm-hmm. donc pour man aussi euh luy wax institution éducation day adapté wu mënoo nekk aujourd'hui en 2017 nga jël éducation xale di ko fondé d'abord da nga wara dem yelwaani pour lan nga yelwaani na nit ñi ñëw organiser ci quartier nous organiser autour des mosquées. Ken newul kenn bu mu mais d'un nga ko l'islam ne l'islam encadrer encadré au monde dañ koy encadré dafa am zakat lui, mais fii ñu bari nous ñuy jàppe l'islam du l'islam mhm. man nga bal maax loolu laa bëggoon duggee ci wax ji li nga ci duggee am na solo jërëjëf jërëjëf caama <laughs> zakat di nous ñun sax ñun nañ ko jël ndax ñoo gën a pauvre <laughs> parce que xam nga daara moom. Hmm. nee du fi jóg. fi lañ ko fekk te lañ koy bàyyi. yalwaan. fi lañ ko fekk. te fi lañ koy bàyyi. Hmm. Hmm. dama daan dellu ñu naan xale dañ koy wut sax mu yalwaan. pour xolam toj. toj waaw. man lu boo gisee ma daara fi ma dëkkoon dañ jàkkaarloo kër daara. dañuy xëy taal sëb bu jàng ba pare dem tool dem yalwaani. suñ ñëwee dem tool. suñ jógee tool suñ ñëwee añ ba pare jàngaat. bu deux heures bu ñu paree dem kii ñaani añ ñëwaan buñ daan jógee dëkk ba ñëw fii nooraan si mm. buñ nooraan see def fi ay deux mois jékki-jékki demaat dëkk ba mën daal lu tax léegi ñu ne rek dinañ daara moderniser waa nañ ko moderniser xale ñu jële bëgg a jële ci mbedd bi yóbbu leen nañ leen jóge ci mbedd ut fuñ leen def ñuy jàng mm-hmm. mais dañ koy wax noonu rek moo jaar man daal man daal loolu moo jaax man tey sama taal bi xam dafa ñëw tey mooy du dem te joxuma ko deux mille foofu laa ko bàyyi mu ne du dem te joxuma ko 2000 francs 2000 la laaj bi yoon waaw foofu laa ko bàyyi ci manqué wax foofu laa ko bàyyi te xam naa ne paa bi su yee dina ko jox ndaxte tàmm nañ ko jox da nga koy yërëm laa biir boobu moo nekk ci olof yi ci sénégalais yi mm. te saraxe moom fi lañ ko fekk mm-hmm. da ngay xëy ñu la joxeel sondeel joxeel suukar mm-hmm. foo koy bu furu ca daara ja <laughs> ah, da nga ñëw sama kër di ma jox sondeel damay laaj damay laaj ah. di nga ma romb di ma jox sondeel wala suukar wala ñeenti guro kon dama lay dóor taaliba yi ngay dem jox ko boo toggee sa laas sax danga naan ca daara ji laa ko yóbbu saraxe ko mhm. dama Grand Dakar gi am na daara yoo xam fa la ñu yóbbu rax si loolu kenn mënu ko fa jëlee xanaa kañ mhm. ñu organiser xale yi ut leen fu fuñ leen def mhm. lu sa Mata Sarr waxoon tabax nga école yu ne yàmb na koñ bu am tabaxal daara daara publique ña fay jàngal ñu leen di fay dëgg la am na loo xam ne ñu wax ko te dund daara du fi jógee tey du fi joge suba du fi joge gannaaw suba. da ngay ne bëgg moderniser moderniser leen. amna ko nek serigne bi bismillah allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah. Salam. Zeynab Fall Fall. waaw Zeynab ñu ngi lay ziar. Fall Fall Fall maa ngi lay ziar. lo lo ma ca ndam yaa ngi ci jamm allo zainab man ah dëgg la dëgg la dëgg kay dëgg la ñu ngi lay ziar bu baax a baax Ousseyn Matar mi ngi lay mi ngi ñu ngi lay fay. di nuyu sama mhm, ngi lay fay. yaay naa la trop. maa la maa la maa la raw. maa la waaw Faal a yàlla ñu bokk ko amiin ñu bokk ko. waaw maa baal nañ la baal ñu àq. jërëjëf waay. waa kay loo ñu yendoog jàmm. merci ñu ngi nuyu bu baax a baax. merci amal nga xam nga ba fi musiba bi amee fii Medina rek. lañ jóg lañ lañu liy bëgg rek na xale jóge ci mbedd bi. gis nga musiba bi su amul woon. Mm. kenn wax xale yi na xale yu jóge ci mbedd bi. bee boo na xale yu jóge ci mbedd bi. Mm-hmm. mais fuñ leen di def. fu ñuy dellu fu ñu leen dellu fan lañ jóge ak fu ñu jóge dañuy wax waaye gis nga am na wax loo xamante ne nii mm-hmm. saf wax di wax rek la waaye demul daara fi lañ ko fekk mm-hmm. ñu ne suñu daara jee nekk pour kenn mënu koo tëj kenn du ko moderniser dañuy xëy di jàng alxuraan taal suñu sébb te kenn fekkuñu fa nag te ba tey xale yaa ngi fay jàng pare ñëw dakaar ut seen métier di liggéey nekk ay kilifa ñu ngi may dégg mm-hmm. waaye jël mo nañu moderniser nañu moderniser nañ tabax ni ñuy tabaxee école yi di def ay cours ek nañ tabax ay daara dil fay tag len di len fay ñu jàngal xale ñu ñibi comme seen kër jaamonu ñoy waaye taxaw fi naan nañ mëna a tay demal fi rek té mairie xale nga tok sarax bi ñuy wax sëñ bi jël sëriñ buñ la né sarax xel tabax sëñ ngaay dama ko jox taalibe bi nga koy jox di mu dem ci daara ja bo toggee lu tax bi nga war jox man naa jox koy tabax ba xam doo ma dóor lu tax xanaa taalibe bi parce que bo jëlé sarax fo koy sarax fo koy bu ca daara ja moom lay bind mais xoolal ko sarax daa bu ko waxee dañ naan dem nañ ca daara ji yóbbu ko boo toggee sa ceebu yàpp sarax yóbbu ko ca daara ji lañ lay wax mhm. doo dugg kër kenn di ko yóbbul ay ceebu yàpp naa ko dama la ko sarax nañ leen waxante dëgg fii lañ dëkk ci Ndakaaru ni leen indi réalité naa togg sarax di la ko indi yow ca daara ji nga ko yóbbu xale yi sukk lekk ko ñaar la yàlla nga gudd fan yàlla nga dem mag sarax bi sarax bi ak loolu c'est pas le débat mooy bi yalwaan mooy sarax bi non yalwaan indi sarax bi moo tax liggéey bi yalwaan mooy indi sarax Euh, xam nga enjeu enjeu yalwaan bi. Mhm. Mhm. mooy euh, xale bi boo ko nee taxawal ci xale taalibe boo gis ci mbedd bi je vais pas dire taalibe xale bu yalwaan ci mbedd bi boo gis xaalis bi ko gën a lu mu gis. Mhm. donc xale bi à base à bas âge boobu côtoyé bu muy côtoyé xaalis rek c'est pas normal. man de sama bos tey 2000 la laaj nee day jënd pile vert. voilà donc xale xale ñëpp xam nañ ne. muy doomu borom xaalis beeg muy doomu euh, ku gën a ñàkk keek xale bu téla xam xaalis ñep même magi sa dañ koy wax. Mhm. xale du téla fréquenter fréquenté xaalis. bu téla fréquenter fréquenté mhm. bu ko amulé da koy uti. ci num ko mëna amé nak ci num ko mëna amé donc man je pense que on a parlé de ça pendant quatre jours aujourd'hui euh, le débat c'est trouver des solutions xol suñu jàkkaarloo ak professeur Wan man Saña du nangu diko baye mu dem te du ko te du ko lacc à son avis gis nañ ko fi mu organisé atelier yu bëri mhm. yan perspective le Sénégal mën tech, parce que gis nañ ne teg nañ ay benn plan d'action de retrait des enfants de la rue ça n'a pas abouti aujourd'hui là la ñu mën a teg ba loolu wàññeeku ba mënul euh, bon man yaakaar naa ne pour revenir euh, ci li nga wax lii mhm. moom lu mu wax lii ni du du incendie Médina Sénégal yàgg na jàkkaarloog problème boobu. di nga soo gëstoo <laughs> depuis époque colonisation Faidherbe même soo xoolee kayit yooyu nga def recherche parce que léegi aussi yàlla daf nu may xam-xama ah. hmm. ñu war a gëstu. soo gëstoo problème bi tegoon nañ ko depuis temps boobu. institut islamique yag nañ fa organiser ay colloque yow parti bi nga doon wax PS sen temps yeen UPS amna ay keet yi nga xamné organiser nañu conseil national sur la question de la mendicité luma lay wax li waaw hmm, euh, may hmm, ma aussi yu bari aussi. Hmm. ba ñu aduna mu soso sosoo ba léegi. am yu am te aboutirul nit ñaa toujours di ay nit. depuis malgré les lois <laughs> malgré charia tout ce que tu veux donc pour vais vous y rek solution man mi 1992 nous avons commencé faire un programme jëmale ko ci parce que nous avons des a c'est un droit

Euh, conteur taxi buy versé clando non damay daan sama doole c'est clair sénégalais nag dafa am façon bu nekk respecté naa ce ce ce ce truc yéen cosaanu daara daara moomu leen ko lislaam moomu leen ko lislaam amul ñi nga xam ne dañ ko moom def ko kii ñi ñu ñooy l'islam ñeneen ñi non lan la ñuy wax xale su xiifee nañ ko jox mu lekk mhm. xale su feebaree nañ ko faj hôpitaux yaa ngi fii su soxlaa jàng alxuraan nañ ko jàngal man sama doom day jàng alxuraan <laughs> mais ku waa déglu dama lay wax rek mhm. jullit bu nekk doomam day jàng alxuraan mhm. parce que ñun suñu religion mënoo di jaamu yàlla te te mënuloo nal tu jàngul alxuraan mhm. mais man sama doom du def loolu du yalwaan dama ko dul nangu sax man ci sama bopp man bañ ne du dugal yelwaan eh? dégg nga ku nekk rek pour revenir ci moom lu mu wax lu am solo la ñu dañ def benn projet bu tuddoon boobu temps projet la woon ba donc nous avec le le gouvernement nous sommes partout dans toutes les villes du Sénégal Nous avons dit rendre hommage à euh, l'imam euh, euh, imam Sissé. daara ba nga xam ne mu ngi nekk njaarim sëriñ waaw ak daara yi nga xam ne fuuta ñu topp di topp di topp ba xam-xale yi fu ñu ñu dem foofu discuter ak ñoom bañ discuter ak ñoom ñu ñëw njëkk a dugal dans tous les daara di Sénégal lu ma lay wax lii mën nañ ko wax xel xom partout njaareem Serigne Moustapha partout mais dugal médicament dugal euh, euh, euh, boîte à médicament jël daara yëpp référencé leen ci système de santé kooku dooma ne l'islam daf ko tere ñu dugal ci biir daara yi dégg nga ay yi nga xam ne aussi dana permettre mu aider daara bi xale yi bañ a tiyal waan di mën a jàng. loolu yéen yéen da ngeen ci doon def ay jéego. dañ ci doon def lu ma lay wax ni 90 la pour répondre que c'est pas incendie bi moo tax kooku rôle rôle ba nga xam ne c'est très extrêmement important état buy nangu ay say xale di taxaw ci mbedd mi di yelwaan toute la journée ou bien ñu leen di sas loolu c'est pas normal mm-hmm. dem nañu ba jox leen ay projet mm-hmm. ay projet économique créer comme ni nga wax ci biir di ci autour daara yëpp dañ créé woon li wax ay ndeyu dara de comité de soutien nga xamné ñom ñoy gérer. képp ku mais mais tonton man li la lima la bëgg a laaj mooy. 92 ak légui defe naa léegi mu wara tollu ci 25 ans. mais ñun yeen yaa ci ciy yëngu keneen mi ngi ci yëngu ak keneen. mais ba légui dafa melni solution amul. xam lu tax solution amul. li mo tax solution amul. yan c'est-à-dire que quand ñuy wax suñu commencé par exemple soo appliqué wul loi. Mm. gis nga mun nga def ay milliards. Mm-hmm soo xaymaa ne luñ ci def ci daara yi lu may wax li ay milliards def lañ ko ci mais ci ci programme yi laa bëgg wax ak projet yi mm. mais comme li nga wax li résultat yi joxewul résultat buñ doon xaar parce que la duñ appliquer loi ku japp normalement xale force ko ne ko dama liyee loi ni traite la mm-hmm. mais yoon dafa war a daan parce que waroo jël nit du ko forcer mu yelwaan kooku ça n'a rien à voir nga jël sa sarax joxe ko waxuma loolu dama ne soo jëlee xale di ko exploité. di ko wax damal indil ma lii soo indil ñu dóor la yoon war na la daan parce que mbedd mi de xaalis la. soo jëlee par exemple vingt xale ku nekk di war yow deux mille yi nga wax. waaw ko jox kay. waaw ko jox dañ koy doon. <laughs> am dafa am loo xam ne suñu culture la bokk. non du question culture. suñu gis nga kenn du leen daan yéen ñi ngeen war a daan mooy ñi leen di yónni xaalis. non waxuma xale non kenn waxul xale ñu daan xale de dama ne la ñiy exploité. ñiy pousse man de li may def ak taalibe. non de non dama may ma rek de may ma ma. waaw waa eggale ah, waaw parce que ci nga bokk. waaw eggale waaw ci nga bokk. Mhm. damala bo wax ne que aujourd'hui ñi nga xamné ñoy ñooy forcer xale yi. Mm. parce que xam nga loolu dootul jàngale dañuy mbubboo rek dañuy jàngale. Mm. jàngale bi comme ni nga wax daara yi ngay wax ji ak ki dañ koy mbubboo parce que xam nañ ne xalé soko ko mu nek euh, na la tuddu talibé mm-hmm. da ngay da koy yërëm. tu as tendance à donner alors que ñoom c'est pas ça qui les intéresse lu ñu intéressé moy xaliss bu ñu ciy mm. sinon pourquoi duñ wax soo tariwul ñu door la. mais soo indiwul nu dóor la mhm. soo indiwul nu jéng la mhm. mooy lan donc yow sa intérêt mooy intérêt économique xale bi day day day doon c'est-à-dire yelwaan xale bi day doon source de revenu pour yow hmm. yow nga nekk kilifa nekk fii yore euh, nan la tudd dëkk bi hmm. yore état bi maa bëggoon tey nga ne da ngay manifester dem pale ba doo fa yegg hmm. <laughs> mais pourquoi ñooñu duñ du duñ leen arrêté ñan ñoo leen war a arrêté ñan ñan ñoo leen war a arrêté yu mag yi ñoo war a arrêté yelwaankat yu ndaw yi dama ah? ne yu mag mm-hmm. dama ne état mm-hmm. Mm-hmm. man waxuma yelwaankat yu mag dama ne état droit la fondé droit su amatul amatul eta état moom rek moo am droit jël ay nit recruter leen ñu yore fetal tey yow soo jëloon ay nit génn fii nga yore fetal ñu jàppale dëgg la état moom moo am droit am gendarmerie am armée état moo am droit <laughs> tey nu kii la nu jàppale yobu rëbës tëj état moo am droit dafay enquête mm-hmm. dama nanguwul que ay xale ñu leen di exploité te amul benn enquêt pour xool ndax xale bii ah, <laughs> waaw ku koy exploité pourquoi mu koy exploité te am na loi lu ma lay wax li du dafa am loi mm-hmm. dafa am article deux cent quarante-sept code pénal bu ne xale suñ ko yelwaan la tonton. Mhm. xanaa xanaa Sénégal ñun suñu nguur gi ñoom dañoo soxalul xale xanaa xale daf leen itteelul ñoom. non xale. Hmm. wala dafa am xale yu leen itteel am xale yoo xam ne itteelu leen. xale mooy li nga wax li phénomène bi. Hmm. xam nga phénomène bu làqu la. bu làqu derrière la religion. Hmm. bu làqu derrière ay aada. aada nga xam ne par exemple dañuy jàngale ak yooyu. làqu derrière comme ni mu wax y a beaucoup de Sénégalais man bokkuma ci ñooñu dañuy wax voilà da ngay wër yi wuti sar kuy sarax ak yooyu am na yoo xam ne sax dañuy téye benn ganaar di wër. wëndeel juróom-ñaar yoon ci bopp am na la bëgg a wax. Mhm. que suñu société bi dafa nekk aussi benn société ba nga xam ne c'est une société dafa femmes lu ñuy wax c'est une société perverse <laughs> parce que comme tu dis il me faut ça il me faut ça il mhm. d'accord. yow nee nañ la léegi organiser leen loolu organiser leen lu ngeen di joxe kenn newu la mais sénégalais kenn newu la daara du fi am parce que ñu bari nag di nga euh, wax jooju nag mooy mooy boole ñu bari mm. kenn newu la daara du fi am mais dañ ne la à côté des daara traditionnelles man su ma neexee yóbbu sama daa sama doom mu jàngi daara ba nga xam ne arabe dañ ko fay jàng mm-hmm. dafa am internat mm-hmm. comme yeneen kii yi soo amee soo amee moyen bi mën a fay mën a fay par fin di mois mm-hmm. su ma neexee sama doom ma jàngal ko sama kër mm-hmm. sama kër wut wut oustaz bu ñëw di ko jàng nan ñuy waxee kii oustaz bu jigéen mm-hmm. non dama ne jàng alxuraan waxuma daara dama ne jàng alxuraan pour jàng alxuraan laa la wax léegi ñu déglu oustaz Makhtar tuuti ndax temps bi mi ngi dem waaw euh, oustaz waaw tey la def synthèse ci liñ doon waxtaan tomb waxtaan bi àdduna bi yëpp ñoo koy seetaan da ngay pare ay appel lañ fi ñu lay woowee sax des fois nit woo la nga yaakaar ne liñ doon waxtaan intéressé wu ko ndax xale moo soxal képp koo xam ni nit nga ndax nit ku nekk danga nekk xale soo ko nekk mag lii yow buñ la doon laaj en tant que oustaz islam mën la gisee xale yu ñu boyal ci mbedd ñuy yalwaan ay mag di leen exploité beneen jullit bi nga xam ne nag dafa toog fële xamul njuliteem nu mu toll ci moom ba tax mu nekk pion ñu jël ko teg ko di ko xeexee lislaam mu yore der bu ñuul mbubawoo julit te su waxee doo yëg ci moom ne kii julit mooy wax jëmale ko ci daara yi kooku lañ nga koy wax waaw jërëjëf Seyda maa ngi jaajëfal monsieur li monsieur wan wan wan maanaam li <laughs> dana am yu ma dellu siwaat ci ci waxam waaye damay ñëw rek ñu may ma ci yalwaan ci gis nga li gëna bon moy tok naan diine diglewul nangam te jango diine sénégal yi bari euh, lu melni yalwaan bu ñuy wax dañ naan diine santaanewu ko léeg sax ñom ay islamolog yuñ ci duggal ban diine la wax l'islam la wala diine ji ma jang moy l'islam ci biir yalwaan daf ci bok yalwaan ci ban forme ci ban façon kana wara yalwan ak kana warta yalwaan hmm. wala mbir mi ne ki manal bopam hmm. mën dem am haram na pour mu yalwan ki tële dagan na pour mu dem laaji lu mu dundé comme li talibé yi jang di yalwani di delu si ci daara ja bobu lay saxal te kenn munu mo tax bama dindiko ndax Louis daa mel ne àndul ci li nga wax de. waaw d'accord bu ma paree mu jël ah tële ci tële ah. mm. ci tële pour yalwaani taalibe bi ci ñi tële la bokk ndax dafa bokk ci réew mi baayam bokk ci réew mi di impôt mm. gaz ndox crédit téléphone suukar meew lu mu jënd ñu dagg tax am ñuñ ko dénk dom joju ne sama bay lam don participer soxla nako ko damaa bëgg a jàng alquran ñu ne ko débrouiller sa bay lim ñu jox dañ koy jox ki jang tubab mais sooralé wuñ len koku dafa télé mune nak mënuma ñaka jang a jàng alquran te sama bay mënul kon damay dem jàngi alquran ci méthode ba señ daara ba di yoré daaram ci sunu diiné ma dellu si ci lima ma ci yalwaan mm. yenent bi la yàlla wax ne yalwaankat bul ko gëdd wa ama saaila fala tanhar tafsir bu ibnu kathir dafa wax ni mhm. man sa saalaka min di xaajatin mhm. fala tanharahu ku ñëw soxla laaj la bul ko jànni jox ko mu dem boo amee ñam jox ko lu mën a jëriñoo jox ko amul hmm. yow yenent bi na nga delloo laajkat bi ci wax ju bal ma ah tay kat dama yorul waaye bul ne ko topp leen fële am na man sa'alukum billaahi fa atuuhu fa atuuhu ku leen laaj ngir jox len ko hmm. borom tafsirul ulusi ne hmm. ibrahima ibnu adham ne na laajkat bi yalwaankat bi dafa mel ni dafa ñew taxaw ci buntu yi naan jox len ma yobbal bu jëm yowmal am nañu firee waaw hmm. am nañu firee laaj ci laaj xam-xam hmm. waaye jullul mu fassirin hmm. dañoo firee laaj yalwaan beneen aaya ci alxuraan mais xale dina laaj xale ah kay bu ko laajee amul âge islam amulul âge laaj ah, amul âge déedéet lu may wax nag damay respecté texte Oussama taal xale bi nekk xale tollu ci jàng nekk xale ki nga xam ne dafa toll ci jàng jàngu di laaj c'est pas normal mais daara ji laay wax taalibe bii laaj lu tax muy laaj hmm. man loolu laay défendre cause boobu li tax muy laaj mooy dafa ñëw ci sëriñu daara sëriñu daara bi di ko jàngal alquranul karim muy dem di uti lu mu lekk pour jàng mais sama tax sëriñu daara bi su fekkee tamit moom amul mënul yor xale bi lu tax mu koy jël man na kay ndax am na xam-xamam bu muy jàngale mais amul lu mu ko dundalee mais amul lu waa lekk non non non du may génn ci cadre amul lu mu ko dundalee responsabilité bi nañ ko cité mm. Mm. état la waaw moom moo deful li ko war parent la d'abord parent bi tële parent bi lan la joxe. cotisation bi joxe na ko ci kees gi ñu may ma ñu may ma. école bi coow bañ a maa ngi doon déglu. ku liggéey dama ne dama ne dëgg la waaw. ñu may ma. Mm-hmm. dama ne. Mm-hmm. parent bi. def na wareefam mooy mi ngi jënd ndox mi ngi jënd leneen loo xam ne ay taxes la mu denc dénk ko état kon parent bi am na lu mu def. mais beneen parent bi nekk ci côté. Hmm. moom it amul mënul. Hmm. tabaxal nañ ko école publique doomam di jàng gratuite. yóbbuwu ko ca daara muy yalwaan yóbbuwu ko ci école ba muy yalwaanee. mais Ousama Tall ki dem ba ubbi daara. opte ni moom dafay ubbi daara. te mënu ko kooku moom amul yenn daan yu ko war moom. déedéet ku ubbi daara. Ah. dafa am ku ubbi daara privé daara publique dafa am ku ubbi daara di fayee mooy li ma waxoon keroog. Hmm. mooy internat moom nga yor yor naa ko keneen ak keneen yor na ko daara privé la daara publique mooy lan mooy daara yi nga xam ne moom la ñuy jàng léegi ci wàllu diine buñ dellusee ba tey ci texte yi. Hmm. yàlla dane wa fi am amwaalihim xaqun lisaaili wal mahrum hmm. yéen ñi yor alal seen alal ji laajkat bi yalwaankat bi daf ci am droit mais Ousseynou Matar ban ban kan moo ci am droit ban laajkat xale bu ndaw bi nga xam ne xamagul dara dinañ ko génne ci mbedd mi rek muy tàllal loxo rek di laaj. pas génne rek di tontu naa la ci laaj boobu Seyda dama ne la. Ah. dafa am koo xam ne dafa génn di laaj yi jàngul ci mbedd mi lay yendu. Hmm. kooku nañ ko utal fu mu dellu ca këram. Hmm. mu am taaliba bu mel ne man ma jaar ci samay mag jaar ci samay baay jaar ci <coughs> ñun nuñ doon yalwaane. Hmm. jàng heure yalwaan heure. mais sama yalwaan googu noonu la ma doon yalwaan ba léegi samay morom daara ja ma doon jàngee moom la ñuy yalwaan yalwaan boobu laa ne dafa légal. Hmm. kenn mënu ma ko sa xelum bopp nga koy ñaaw la mais man rafetlu naa ko sama baay mu ma fa yóbbuwoon sama yaay rafetlu na ko. Hmm. yow bu la neexee nga ne sama doom du fa dem. daara yooyu nag moo je moo moo moo dajal Sénégal mooy daara yi ëpp boo demee Tiwaawan moo fa fees léeg-léeg ñu ne këru diine amul yalwaan loolu wérul Tiwaawan daara yi yalwaan ñoo fa fees dell. Touba daara yu yalwaan ñoo fa fees dell Njaasaan daara yu yalwaan ñoo fa fees dell Yoof gii daara yu yalwaan na fa fees këru diine yëpp daara yu yalwaan na fees hmm. kon gan këru diine la ñuy wax beneen bi mooy dañu titre bi lan lañ def mendicité des des enfants hmm. waa pojetiser des enfants nag kan moo ciy wax lan pojetiser <laughs> des enfants mooy lan maanaam pàkkal ñu gone yi Moi pas bi Moi hein. projetisé bi des enfants. ci thème bi la koy dugal ci lay ndax tout le temps ils wax exploiter les enfants. mais ki jël xale viennent vacances, ils ont di leen fecculoo outil sponsor. Hmm. mais ils ngi exploiter xale des te Ils kenn du ci wax. ndax ils am nañu avocat am des télé am nañu leen waxal am des... animation poto taalibe bi dafa honnête gàddu potam. dem di yalwaani kër moom gàddu poojam di pooj. dimbali ma Louis Louis lan sànq ba tey dafa mel ni Oustaz di Maxtaar wax da nga bëgg a jël. kii bi la mënu la ànd ak man ci li may wax xam naa. xam nga du question la mënu ma ànd ak yow. Mm. mais euh, damay wax ni euh, li mu gëm. Mm. kenn mënu ko tere gëm ça c'est un fait ku nekk ak li nga gëm mais ku nekk xam na lu luy yoonu luy droit wu xale yooyu luy ak ak yelleefu xale yooyu. sans que man duma bëgg accentuer ci école mais gis nga ñi nek école ñi nek école publique saa ñu xeyé hmm. pour dire que bu parent am na lu ko war saa ñu xeyé xala yoy seen yaay du len bàyyi ñu dem école non dañ len jox goûter len jox lu ñu lekk ci école ba. Hmm. de la même manière ku jox jël sa dom yóbbu ko daara wala yóbbu ko fenen nga wara jox participation li ngay fay impôt li loolu yow la war ku nek am na li la war. Hmm. légui yow li ngay jox sa dom mu dund yow la war warul keneen warul sëriñ daara bi.

démb jéem naa dugg ba sonn malheureusement mënu ma woon dugg. dëgg la dëgg la. ak bërki démb yi parce que dafa am aussi lu ma bëggoon dellu ginnaaw tuuti soo ma ko mayee soxna Zeynab. Mhm. mooy affaire euh, xale yi ngeen doon wax ci toilette yi. su fekkee ah. mën naa ci indi contribution bu ndaw rek. amul benn problème. waaw. Mhm. parce que euh, dafa am école bu nekk Derklé boo xam ne. école Derklé 3. Mhm. exactement pour être plus précise. dama dem ci station bi di def vidange sama oto suba teel. Mhm. xale yi di ma romb di yor ay siwo. ay siwo dugg ci toilette station bi di wut ndox pour pour fomp seen tableau yi. Hmm. affaire bi choqué ma nag parce que euh, bi ma leen laajee ñu ne seen école amul ndox. Hmm. ma ma jàpp ne loolu lu garaaw la ci dëkk bu mel ni Sénégal. Sénégal doy na waar parce que boo xëyee falal sa doom yóbbu ko école. Hmm. prof bi wala directeur bi wala ku mu mën a doon génnee ko jox ko si wandox ne ko demal root yi mhm. pour lu ñu fompee tableau yi jéggi mhm. tali dem ba ci station bi mhm. loolu defe naa ne gisuma lu ko gën a ñaaw ci affaire exploité xale doy na waar loolu nag xaw ma responsabilité bi fu mu situé wu ba école boobu amul ndox mais daal loolu dama bëggoon daal vraiment buñ ci mënee am solution xaw ma maire bi la xaw ma kan la mais lu doy waar la ay xale yu ndaw yu am sept ans huit ans gàddu ay siwo ndox. doy na waar na station bi di wuti ndox. pour mm. pour fomp tableau. dëgg la loolu daal dama bëggoon interpellé ci autorité yi daal bu fekkee mairie bi moo war a fay ndox bi na ko fay. Mm-hmm. parce que xale yooyu suñu génnee ci école bi lu leen dal ci mbedd bi seen responsabilité la. dëgg la. waaw loolu daal laa ne jërëjëf. <laughs> waaw kay amin amin amin merci jërëjëf Dieng dégg nañ ko li wax. ah. Mm. ay doom ñu jàng daal. daara internat la ñu jàng. xam nga ñu fu te ay seen papa nekkul kii hmm. doomu général ay doom ay dara la jàng hmm. te vacances boobu ñu ngi dem ci bitim réew hmm, xam nga xam nga mère Thiama ah. daara li oustaz Maxtaar doon wax daara daara fi nekk nii dafa bëri ay façon yéen li ngeen yor loolu daara tubaab la daara li xam ah. daara mun daal li nga xam mooy daara dëkk man dëkkuma ndakaaru tubaab rek moo bëgg lu baax du loolu sax man dëkkuma dakaar ak arabe yi tubaab ak arabe yi. Ah, non xam nga tey du ah. bi ma xam daal bi ma xam. dafa am ay façon bi ma xam. Euh, ay façon daara mooy bi yeewu fajar ñu teg euh, kii pare dem. ñu taal lekk cere dem tool ñëwaat jàngaat. Ah, daara bi daan boobu moo fi boobu moo fi cosaan mooy cosaan bi ah. dafa am daara joo xam ne. Mm. xam nga démb seexu naa maa ngi koy nuyu dégg naa muy tudd ne yalwaan li ko indi. Mm. xaw ma sacerdoce la woon xaw ma mais maa ngi koy corriger ci loolu. yalwaan dafa juddoo ndoog Cheikh naa ñu ngi lay nuyu. ndax jamono yi wax xiif ay 14 lan 44 yooyu la ñuy wax jafe-jafe yi fi amoon. Hmm. maam Cheikh Al Hadj bi muy jàng nekk ak maam Cissé Touré amoon nañ taalibe buy yalwaani. démb dégg naa ko ko wax ne El Hadj ak ñoom Baye Niass jaaruñ ci yalwaan bu ñuy wax dañ xam li ñuy wax. ki gën a fës senegal nga xam ne kooku tudd mu xam ko muy Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz. Hmm. ci moom laay daanalee. biir Tiwaawan yaayam soxna Safiyatu Ñang di sóor ay mbana hmm. muy gàddu boolam di yalwaani hmm. ki ne yalwaani du yar nit am na ñu yaru te yalwaani wuñu Cheikh Al Hadj Abdou Aziz kan moo ko gën yaru senegal ka baax te nee na hmm. projet gars yi bi ñuy indi projet modernisation daara avant bii modernisation des daara des daara indiloon nañ ko projet bu bokkul ak bu mujj bu bon bii ñu indi woon te ma wax ne liir naa ko A ba Z. Hmm. gis ci jóori point dara baaxu ci. moom bañ ko indiloon. Hmm. la wax ne bi ma ko dégloo xam ne jaarul yoon ca laa ca taxaw. Serigne Abdou Aziz Sy. moom Cheikh El Hadj ne. Hmm. ku am looy dimbalee sëriñu daara. gis nga modernisation boobu. démb mbokk mi toogoon fii maa ngi koy nuyu. nee na gouvernement bi modernisation bi mu indi mooy ñu tabaxal la defaral la mais ñu bàyyi la ak na nga doon jàngalee du projet bi ma liir de waaw man man maa laaj ne ko ndax mm. loolu bu amee tamit dañ lay bàyyi yow mi nga xam ne yaa ubbi sa daara nga tëral sa tëralinu bopp mu ne mu ne waaw noonu lay la bàyyi ah déedéet ah. dañ lay teg dañ lay utal ay conditions loola dañoo teg sart yi ngay jàngale yow gis nga sa internat bi projet boobu bu jàlloon mm. force da ngay xëy tëj sa internat bi fekk si leen yow def projet bi ñu indi yow. nangami at ci kanam. Cheikh al Hadj abdullah Aziz ban modernisation la woote. dane ku ci am looy dimbali. Mm. demal ci daara ji nga fekk sëriñu daara ba ndongo daara yi wër ko nga dimbale ko ku bañ ñëw nga tabaxal ko sa daara. ken bañ ko kan moo ko bañ. ken ku bañ say ndongo bañ a yalwaani. ku bañ say ndongo bañ a sol ay yére ku ku ne bëgg nak ñu defal la ko sol yére yu set. modernisation boobu kenn ko ba bañul waaye dafa am daara matière yu nuy jàngale mhm. modernisation bi ñu wootee day rey matière yooyu yëpp mhm. dee su ko jàngalee mu ne nag balaa ñu supprimer daara hmm. nañu supprimer dorog nañu supprimer dorog am na yu yu ñu war a mën a wax waaw tonton <laughs> baal nañu Ousama Tall man xam nga débat bi xam nga man moo tax des fois <laughs> euh, oustaz euh, respecté naa la trop mais euh, ñoom dañuy détourner wax ji dañuy détourner man fi ma jógee hmm. Fuuta hmm. kenn duñ jàngal lislaam Fuuta am na ay xale yu yelwaan am na ay xale yu yelwaan mais am na ay xale duñ yelwaan <laughs> dama la bëgg a wax ne que dama la bëgg a wax ne que nuñ dem ñu ngi jógee ci ay ay almaam yi te musuma yelwaan te maa ngi sant yàlla ba mu musuma yelwaan loo te jàng naa alxuraan maa ngi ciy sant yàlla maa ngi jaamu sama boroom te kenn mënu ma wax ne que kii moom a gën a nekk jullit kooku yàlla dong moo xam kan moo nekk jullit lu ñuy wax parce que ñoom dañuy jël lu ñuy wax c'est très clair est-ce que xale bi war na sangu est-ce que war xale bi war na lekk-lekk bu baax est-ce que xale bi war nañ ko teg loolu la ñuy wax De côté, Khalis, indil khalis so indil khalis nu duma la loolu lañu waxu wax ay affaire waaw ay yoy dégg ku nekk nak nga mhm. c'est très clair école publique bi fi am mënoon nañu jangalé français lañ fay jangalé parce que y a malheureusement y a eu la colonisation du deug fi lañ ko fait colonisation même soo Arabes, il arab amul aucun pays musulman au monde là la wax mm. <laughs> nga xam ne seen seen seen kiitam mooy former tàggat xale yi ci diine tàggat xale yi ci adduna ba former ci ñi nga xam ne dañuy doon ay médecin former ci dañuy doon ay nan tudd ingénieur former ci kooku foo jaar ñu def ko foo jaar état république dafa am su neexee état mu jël modèle am ne bii modèle laay jàngale alxuraan sans mu tere ñeneen ñi ñu jàngale éducation religieuse. c'est c'est tonton Oustaz Makhtar xam nga li ko xaw a jaaxal xaw ñoo jaaxal ñun. waaw mooy état naka lay nekkee bàyyi ñëpp tabax ay école xale yi nga xam ne. seen parent yi seen loxo jotul seen ginnaaw ñu fay jàng te duñu fay kii bëgg a jàng alquran tabaxu luñ ko foo xam ne fa lay jàngee état da boo jiitee da ngay yemale niñ tabaxee école yi noonu la waree doon waroon tabax ay daara ñi nga xam ni bëgg nañ waaw ñi nga xam ne bëgg nañ seen doom jàng alquran ñu jàng te yow am nga bëgg-bëgg man am naa bëgg-bëgg mère Thiama am na ko Oustaz Makhtar am na ko Louise am na ko loolu kenn mënu koo bañ mais problème bi mooy li ñuy xeex li ñuy wax moo dina tànk demuñu ci racine bi duñ am solution. tabax nañ école nañ tabax daara. école tabax non non une école, école bi dafa am lu ko indi. lu ko indi. xam école bi. dafa coloniser. plus de trois siècles. Sénégal est le seul pays africain où colonisation bi dure ne plus de trois siècles. trois trois siècles. ñu instituer école publique. mais attention même même ñoom seen am na ay médersa yu amoon parce que soo demee Mauritanie même durant la colonisation amoon na ay ay médersa ñun jàng nañu école temps wu colonisation man fekk naa ko. je suis d'accord avec yow normalement ci offre publique éducation war na am éducation religieuse. Mm-hmm. bi nga xam ne yow yaay taamu. ku nekk fu nga bëgg a dugal sa doom waaw mais li nga xam ne kenn du ko d'accord mooy nga jële xale yi gàddaayu xale comme ay xar mhm. ñu jële leen ci àll ba u mhm. jële leen ay Guinée di wax ne impôt ban parent ban parent eh, ban parent Guinée moo fi fay impôt xale yi ñuy jógee Mali di taxawal damal front front de terre tey responsabilité bi waaw may ma rek bu wax ba da wax da may bàyyi ma wax man bon ce que damay wax parce que aussi di nga dafa am benn discours boo xam ne populiste nee nga yow yaa ngi waxal majorité sénégalaise, man man man tam maa ngi waxal majorité sénégalaise, hmm. ëpp loo ma majorité yow. faut pas aussi ngay xëcc wax ci ne moi je parle pour la majorité. non non may ma rek non may ma ma da may bàyyi ma wax. d'accord yow da nga am ah, sa ah. conviction. que mhm. musulman je suis musulman. waaw tes parents ne sont pas plus musulmans que man. yow sa référence religieuse sëñ Abdou ak yooyu yëpp je les respecte. Uh-huh. dégg kër diine laa jógee man xamuloo ma. xamuloo ma ci diine tonton ñu ñëw ci thème bi. rek ñu ñëw ci thème bi non mais du ngeen bubboo mhm. parce que yéen seen discours. bul bul ñëwati ci yéen nañ dem ci thème bi. non d' accord ci thème bi laay ñëw parce que yow da ngay justifier. Hmm. yow da ngay justifier exploitation xale parce que suñu waxee rek ñoom ñu indil la. daara non non non nañ jàll ci thème bi wax li hmm. ñu nañ ay latrine dans les daara

mel ni nit dañ contre daara c'est faux les gens ne sont pas contre djang al alxuraan dans l'islam génnal ma benn hadisu ba nga xam ne day wax ni façon bii nga war a jàng alxuraan da nga war a torox waroo sol yére waroo sol dàll dañ la war a laaj cinq cent francs dégg nga cinq cent francs dafa amoon euh, euh, temps boobu pourquoi ñuy laaj xal yi xaalis xaalis tubaab yi ñoo indi c'est le système capitaliste moo indi xaalis ñun suñ mode économique amul woon l'islam aussi nga xam ne tribu arabe yi nga xam arabe indi warul bokk ak ñun conception une euh, euh, euh, conception éducation hmm amul ben religion buy nangu xalé ñu japp ko pourquoi yeen du ngeen dénoncé xalé xale ba nga xam dañ ko japp mm. condition yu nekk ci daara yi kan mo koy nangu mm. ñi nekk daara sax ñoko wara ñëk bañ mm. daara dafa am norme yu ñu ko wara a waxuma né état bi day jël programme man liir na projet de soko né dañuy tej daara c'est pas vrai man liir naa le projet portant statut du daara amul fenn fu ñu ne dañuy tej léegi tonto solution bi moom La solution bi man la solution un. Hmm. wax nañ dit que nous yi dañ leen effectivement jox ay subventions nga xam La mais euh, ay subventions nga xam Mais hmm. hein, la la république dafay joxe subvention mais suñ joxe subvention day am condition c'est pas n'importe qui nga xam ne da ngay y un enseignant aussi da ngay def concours pour nous donner un instituteur mais dañ les recruter amul benn état sérieux au monde nga xam ne day bàyyi n'importe qui da ngay jàpp xale ne du ubbi fii ne dama leen jàng muy français muy n'importe quoi état bi war ko nangu. Hmm. muy école comme kii nu mu wax école yëpp moo war am point d'eau. Hmm. école yëpp am latrine. ñu hmm. ñu ay Casamance def nañ fay école def fay latrine def yëpp tey am na ay école publique am na ay école publique soo leen gisee yenn daara yi ñoo leen gën téeméeri yoon amna école, ay écoles yi nga comment on appelle yii école sans abri amna école ay écoles yu amul toilette école publique suñu jógee rek né français français lutax yeen yéen ngeen di yore ay portable dans ces conditions pourquoi vous vivez euh, de consommer comme des euh, euh, anciens temps ñi wax yooyu yëpp seen benn dom du yelwaan comme nu ñu leen di def mm-hmm. mais nuñ waxuñu bu bu nen ñu jàngal Alxuraan mm-hmm. au contraire yàlla waxul ne yalla am fenn fu mu waxee daara bi moy daara c'est pas vrai yalla dafa ne jàngal leen xale yi ixra xale mën nga leen jàngal dans de très bonnes conditions soo demee Turquie gënoo nekk Turquie musulman gënoo nekk indonésien musulman il faut que les Sénégalais arrêtent donc nuñ lu ñu bëggal suñu doom nu jàng alxuraan bu baax mais dans de très bonnes conditions ñi nga xam ne effectivement léegi ñoom ay ustaas lañu ñu am na capacité pédagogique jàngale xaw ma na ah, xaw ma ñan ñoo leen war a euh, kii mais dañ war a contrôler

xam nga ku ne day wax kiyam rek xalaatam rek amul problème. non bokk li ñuy wax. waaw ñun ñëpp ñoo bokk wax man respecté naa kii waxam ñoom ñëpp respecté naa seen mais dafa am da nga xam ne soo ko waxee ci wax rek ah. yàq nga débat parce que man soo ma nee da nga may booleeg jullit yi Sénégal du ma ko kenn du la booleeg jullit du ma ko non man wan laa sant naa français jàng naa français <laughs> jàng naa jàng euh, alxuraan uh-huh. mais taxaw fii

sama yéene ci l'islam mooy ñëkk am am moyen comme tu dis a yore seen waa kër mhm. sa éduquer sa débat ku nekk da ngay wax rek sa sa sa xalaat mais d'accord mais bu ci Louise ne mhm. <laughs> l'islam non non <laughs> thème hmm? des enfants un business florissant mhm. c'est ça le thème hmm. il a jamais été question de parler de Dara buñu tecc mm. ak école mm. donc aujourd'hui ce qui nous intéresse moy nan la def mm-hmm. ba xalé yi nekk ci mbedd bi joggé ci mbedd bi ben affaire amna mm-hmm. il faut que les Sénégalais l'acceptent moy c'est un business c'est un système qui xamné jëlé ko fi du yomb mm. solution yi bokku na ci moi ça je l'accepte que euh, mu am équilibre touti même si mënul nekk 50-50, ça c'est un fait parce qu'on a été colonisé euh, sen loxo mi ngi suñu kaw ba léegi mënaguñ ci lu bëri. Mhm. donc euh, il est normal aussi que ñi bëgg a jàng alxuraan. Mhm. gis seen bop ci jàng alcorane bi à moindre coût c'est un fait. Mhm. solution là. mais tamit euh, pour lolu dañ foog ñëpp japp ci damay joxe ben anecdote ben exemple bu ndaw ñi ngi wax né Ablaye wad bu aussi amé won dafa rusoon ay ganam gis né Sénégal dafa am yu une semaine avant aussi bi wax na ne tel date ba tel date bëggu fi gis ku yalwaan kenn kenn yalwaan kat ci toog ci dëkk bi rek veille aussi bi dafa xëy jël ay busam buub leen ñoom ñëpp yóbbu leen ci frontière bi ne balaa ñuy ñëwaat euh, gene ñibbi nañ pour dire que volonté état ken mënu ko kenn mënu ko cest dire que volonté moo ñàkk mhm. pour dire que bon, ben fan ben fan il a réglé le problème kon war naa mën a réglé voilà donc bu ci bëggoon def loo xam ne day dañ day dañ c'est un fait. xam nga xam nga Louise lan may wax ji olof nee na. waaw koo xeeb mu yab la. kese gis nga ndongal ki jàng alquran. Mhm. sonn ci di yeewu fajar doon yalwaani doon taxani dem ba nekk magum jëmm ubbi daaraam buggul delloo xale yi comme moom ca la mu jaar. kese xam nga loolu ñun ñëpp xam nañu. Mhm. mais xam nga lan mooy problème bi Sénégal li fi nekk li Mère Thiam wax léegi dañ koy wax te dund. mooy tey ku ci am problème daw ci oustaz Makhtar borom daara ne ko ñaanal ma mais bu jëf jotee ñu dem defee neneen loolu gis nañ ko loolu la lay wax imaam a koy woo moo koy tudd oustaz Makhtar bu waaw loolu loolu la ñuy wax da nga bëgg eggaleegu waaw eggaleegu ma <laughs> donc li may wax mooy euh, benn affaire am na mooy xale di nekk ci mbedd bi baal ma de nee na sëñ Babacar mi ngi ci téléphone sëñ Babacar <laughs> waaw oustaz Makhtar bu téléphone bi day bari <laughs> waaleykum salaam sant yàlla alhamdulilah baa taw bu leen. ñu ngi sant alhamdulilah. ñu leen di ziara bu baax di leen ndokkeel euh, ci weeru gàmmu bi. ñu ngi lay ziar yow itam. Euh, di bëgg tamit ci seen plateau bi ngeen def. Mhm. maa ngi nuyu sama mbokk dara nga xamante ne bii moom ngeen dalal di Oustaz euh, Makhtar Sarr. waaw ku baax yëkkatil kàddu gi tuuti rek dégg bi xaw a neex. wala ko maa ngi nuyu bu baax sama mbokk dara boobu xam naa daa daa daa daa ndékki lu ëpp moo tax toll nii dérègle moom su lay li muy ëpp nag ay réalité xamante ne bii nit ñu ciy dindi lu toll ni tafatul ay parce que problème bi yëpp bu ñu xool dafa bi ni ne bi tey moom la yàlla jox li nga xamante ne bi moo di mooy ñu koy tuddee état mm-hmm. mu nekk ndey ji seex moo jël weenam nàmpale ko benn côté parce que li tax mu jël weenam nàmpale ko benn côté mooy. Mm. li Maxtaar wax ni mm. mboolem parent boo gis ci kaw suuf. Mm-hmm. mi ngi am ay taxes yoo xamante ni ñu ngi koy fay au niveau de l'État. la koñ boo dem tey di nga fa fekk mu am ñaata école yoo xamante ne bii ña fa ñu wut ay maître daf leen fa teg leen ci ay bonnes conditions. Mm-hmm. ñu fay jàngale. te ñun ñu nekk quatre-vingt-dix pour cent yoo xam ne bii ay musulmans la te doo dem ci benn koñ ba fekk fa ñu tabax fa benn école boo xamante ne bii dina mën a nekk loo xamante ne bii c'est uniquement pour que euh, ñu ciy jàngale wàllu alquran. Mm-hmm. loolu dafay wane na kon li ñu bëgg dindi dina jafe pour ñu dindi ko. parce que tey su fekkoonte ne euh, moom oustaz Makhtar boobule. Mm-hmm. wala yow Seyda yow ñu nga xamante ne bii yéen a ngi yëngutu ci jéem a seet naka ngeen di def pour. Euh, Euh, jàngal njaboot gi. Mhm. éduquer leen def ci ñoom li nga xamante ne bii moom la ñu soxla parce que problème bi problème de soi mhm. man su ma amee sama soi ne sama doom. dama mhm. koy yóbbu pour mu jànge école euh, nasaraan. loolu sama soi la. waaye tamit ki nga xamante ne bii tamit li mu choisir mooy. loxoom jotul gannaaw waaye bëgg na diine mhm. xam-xam alquran nekk ci li nga xamante ne moo ci dund mhm. li xamante ne bi mooy moo bi mu ko mën a euh, bi koy mën a may am ko mhm. dafa am na koo xamante ne bi moo ci war a dugal loxoom ñu tuddee état moom état moomu nag tey ñi nga xamante ne bi noonu la waroon a tooge moom la toogewul moo tax li Maxtaar wax dama ci ànd ak moom di ko euh, soutenir à cent pour cent mm-hmm. parce que bu fekkoon ne tey defoon nañ li ñu war a def mm-hmm. yemale woon ñu xam ne ñëpp seeni njaboot lañu kon tey taxawaan gi di am ci mbedd mi du fi am mm-hmm. bi ci def tamit mooy comme li mbokk mi wax euh, ci wax ne bu ñu xoolee tey ñi nga xamante ne ñooy étranger yi nga xamante ne bii ñoo jóge ci bitim réew di dugg si ci réew mi tey foo dem ci koñ bi fekk leen fa ñuy yelwaat mais loolu c'est qui l'a fait c'est l'État parce que su fekkoonte ne tey li nga xamante bi mooy les frontières yi benn bu ci nekk jël nañ matukaay yañ fa waroon a ñu ko yaa xam kon am kenn koo xamante ne bi bala di xam li day yëkkati lan la lan moo tax ngay ñëw su boobaa am nii du am. dëgg la li nga ko gën a indi. Mhm. Euh, li ci gën a bari mooy li ci mooy les étrangers état bi moo war a jël ay matukaay te gis nga soxna si wax nga lu am solo ci suñu laaj bi. Mhm. bi bi mu bëggee problème bi initiative xamante ni ñoo doon doxaale yëpp mu jël leen sànni ji leen eau de frontière ne bala ñuy doxaalaat a ko réglé. Mhm. <laughs> Mhm. a lu lu lu parce que xam na am na ñu. waaw waaw waxtu bi moo ñuy waaj a dab. ñu jaarale bu baax ñu ngi sant sant jéey. <laughs> jërëjëf Oustaz Babacar ñu ngi koy ziar bu baax a baax <laughs> Louise euh, waaw waxtu bi mi ngi ñuy mi ngi mi ngi mi ngi ñuy dàpp hmm, cinq minutes moom moo ñu dese waa Oustaz Matar waaw damay ñëw direct rek ci solution yi hmm. solution yi jumaa yi nekk ci koñ yi hmm. état bu pare woon rek pour yalwaan gi dakk na jël koñ bu nekk benn jumaa ju fa ne mu tabax fa daara pour régler problème mu raison yépp ci Sénégal sëriñu daara ya nga xam ne ñëpp xam nañ leen ci xam-xam ñu jox leen ñu gérer ko am na ñoo xam ne pare nañ jàngale fii sabilillahi laaju ñu benn dërëm état laajuñ ko kenn ndax seen dund gëm nañ ne ci yàlla la bàyyi ko ñu jël xam-xam bi nekk ci ñoom ñu def ko ci xale yi mais li ñuy bañ te du ñu ko mos a nangu mooy gaa ñi jàngi université génn ñëw ne ñoo ñuy jiite ci daara ji te ñoom duñ nangu ñoom waa université ñun ñu jiite leen iniversité te loolu mooy problème principal mooy daara dafa am réalité am téere yu ñuy jàng projet bi dama ne la dama ko liir A ba Z hmm. du solution biñ indi woon xanaa ñu tëggaat beneen projet trois ans al quran matière yi nga xam ne moo des ci daara duñ ko jàng du solution tabax daara jël sëriñu daara koñ bu nekk ni ma ko waxee jumaa ja ñu dugal fa sëriñu daara mu jàngal xale ya fii sabilillah ña jóge woon ca raison ya wala fu raison ñëw ca raison ya mën nañoo dellu ndax seen gox projet ba mën na faa yegg ñu tabaxal leen bu ñu réglé nag daara yi ba nga xam ne xam nañ ne ku bëgg a jàng alquran am na foo dem danañ mën a distinguer ci mbedd mi kan mooy taalibe mhm. kan mooy seex kan mooy maan kan mooy fàqmaan mais première tooñ Sénégal mooy gàddu pot goo gis ci mbedd mi rek tudd daara te sëriñu daara yi nga xam ne ñi ngi nekk borom ay kilifa toog di seetaan di jàngale ci yoon samata baama dëb Ousmane ba Ousmane mi ngi mi ngi xaar ba Ousmane salaamaaleykum rahmatulah Zeyda Ousmane waaw Zeyda ñu ngi lay ziar yal na yàlla nangu ziar mbaa yaa ngi am jàmm waaw maa ngi sant lay ziar bu baax a baax yaa ngi doon teewlu waxtaan wi de maa ngi doon teewlu waaw kii waaw kaaw ka tey kaaw moo ñëw kaaw. tey xol yi ñu ngi yëg ci xol yi. ndeysaan wax yéeg nañ ci xol yi. wallaay wallaay ndeysaan. mais am na solo ñu ngi posé débat. dëgg la dëgg la dëgg la solution mën di génn. aha solution day génn sax incha euh, allah tey tiitir yi naka lay demee. mu ngoog li ñu nam jukki bu benn waxtu jotee bokk na ca procès bi ñeel euh, aw kii di xalifa sàll dàq nañ ko ba ñetti fan. ci weeru janvier atum 2018 ay avocat ñoko sakku né mayu ñu len ap temps te it yëgal ñu len ci bobé procès muy nak ak salfaaña gu ñu ni mu ngi dëxuñ ci article 174 bu code de procédure pénale dañu ko yattal ci xibaar yi leneen dina ci bokk muy ap séminaire la ko tax a jóg mooy ba ñi nga xam te ne maire ci réew mi

daanaka dañ ko gantal di arrêté bi nga xamante ni jëw ñu dénk wàllu karange biir réew mi moo ko jëlu ni ki daaw ñoom ni jaaykat yi ni daañu sàmmanteeg lu ni mel dan ko famfàcce ci xibaar di lu ñu nam jukki ci kanam tuti Zeyda incha Pa Ousmane dinañ ci ànd ak yow incha dañ ko taaxirlu incha jërëjëf nekkal si jàmm yow tamit waa jërëjëf merci léegi Oustaz Makhtar nga daaneel waxtu bi moo ñu moo ñu moo état bi lay am nañ daara ci gox yi Sénégal ñoo fi ëpp école yi am nañuy résultat yu dul jeex nañ leen bàyyi xel te bàyyi leen xel weesuwul ñu dindi kumba am ndey ak kumba amul ndey gi nekk ci dëkk bi fekk dañul hmm. li ñuy wax dañuy ñëw rek fekk safara hmm. séb bu ñu ci ëf pour bëgg mu fay ah. mais du fay hmm, fan yi ñu ngi wateel ministre yi seeni budget assemblée ñaata dërëm la ci daara am foofu la problème bi yëpp nekk bis bu daara amee fu ñu leen tabaxal hmm. ñu dem fa di jàng alxuraan hmm. ku tuddati taalibe ci mbedd mi doo ko gisati dana dakk hmm. waaye fekk loolu amul taalibe yi dañuy gàddu seeni pot dem di yalwaani heure di jàngi heure ba keroog ñuy gis lu tane loolu d'accord man <laughs> balaa xel di fatu may souhaiter un joyeux anniversaire à Marie-Thérèse Maïté ñu koy souhaiter joyeux anniversaire réalisatrice bu ñaawul bi <laughs> ah allah Ben mais pour pour revenir à notre thème rek. Mhm. Euh, mendicité foog mu mhm. dakk Sénégal et ça volonté politique la mais tamit volonté pareil yi la na ci ñëpp jàpp xale place am du mbedd nit mënul wax ba xale place am nek mbedd. nit mënul wax ba xalé place am nek mbedd donc ne parents yi sen doomi xamna ñoo leen wara dundal état tek ci loxom oustaz Mactar lu mu wax solution da République solution la il faut que mu am mais luñu ñu gis fii jalwaan bi mo ëpp jang bi.

sën dénkaane émission bi dénkaane la tudd. waaw dénkaane lan ngay dénk askan non man lu may dénk premièrement mooy état bi mu appliqué loi bi. tey tey tey tey suñ jógee ci émission bi. Mm-hmm. ñëpp képp kuy noot xale. Mm-hmm. képp kuy noot xale même su dee yaay parent am. Mm-hmm. na na il yoon daa war a dal sa kaw pour loolu dagg. maintenant oustaz lu mu wax li ñu yàgg nañ xeex loolu.

man li nga xam ne muy xale nekk ci daara bañ nekk ci daara xale yi nekk ci mbedd bi di yalwaan il faut trouver solution léegi nag am na solution yu bari defoon nañ ko fi li nga wax lii. dëgg la tonton baal ñu de temps bi de ñu dab. xam nga waaw léegi ba terminer rek bala may ah. terminer wax parce que aussi lu ñuy wax ci école ñiy jàngale école. Mm. c'est faux tey am na enseignant yu bari dañuy am problème.

may te suñu réalisateur bi mag bi comme li mu fi wax yëpp rek mhm. pour defar rek la waaye ñëw ñu fi pour di xupp kenn mhm. ñu ngi ziar dañu moderniser ziar dañu enfant de la mhm. am na sa grand de la rue xanaa kon lay def waaw nañ topp a nekk mag dëgg nekk grand de la rue kay grand de la rue daal dëgg la day gis magum jëm dara jotu ko nga taxaw du yalwaan waaw waaw fu ñu ko jëlee te moon yalwaan kay dama bëgg ñu xàmmee taalibe ak yelwa dëgg la caama jërëjëf <laughs> waxtu bi dab nañu <laughs> Marie Thérèse Mayte ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga gudd fan yàlla na nga fi yàgg suñu réalisatrice bi nga xam ni dafa ponctuelle macha allah fonk liggéeyam Mayte yàlla na nga dund téeméeri at yu teg sa yaay ñu ngi koy ñaanal yàlla na xippee aljanna kon ko yi tey li moo nekkoon seen émission bi ñu jaajëfalee kaaw bu baax a baax a baax ñun ñëpp ñu ngi lay jaajëfal ñuy weltiima noonu konoona ah? jaaraama kon mbokk yi ñu yendoog jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu